Euh, ci wàllu euh, càmmoñ bi euh, migi Maram Ndiaye mo fi teewal radio Sénégal migi ñu lay dalal. jerejeuf Fatou ma ngi lay nuy du nuy également le président de la République du Sénégal bassir Diomaye Diakhar fay ak sénégalais yi nga xamni ñi ngi ci bir réew mi ak ci bitim réew di ñu may noppi di yaakaar ni waxtaan bi la dina am lo xamni rek ñom ñep dinañ si jëriñu. nga fego ak Pierre Edouard fay bu groupe Walfadjri Edouard ñu lay dalal. maa ngi lay fay Fatou Sakho di la nuyu di nuyu ñëpp ñuy suivre jamono ji sunu plateau bi di nuyu monsieur le président de la république ak samay naataango yi nga xam ni ñoom laa plateau bi. Sawet nga toog ak la princesse de la RP Mariam euh, Ndiaye bu groupe euh, Sud Communication Mariam bonsoir.

manam nan lañu yoré yoree kopparu réew ak nan lañ koy doxale jëm ci urgence sociale yi nga xamanté bi euh, tax na euh, fan yee rek ñu wañi euh, dundu gi jël aussi ay mesures yo xamanté bi xëj buñ ci démé dundu fi ci biir rewmi dina gëna yomb gëna woyof yan urgence la journaliste yi dinañ ci ñëw ak mom ñëw tamit ci situation politique bi parce que nak mënut a ñàkk li fi xew yépp moo tax ak benen poñ bi nga xamanté bi euh, moy diplomatie ak intégration africaine ndax naan dañ naan euh, bay sa wewu euh, comme nim koy defé depuis mu jëlee nguur gi dafay wër rew yi nga xamante bi ñom ñoko wër dem na fi France ñëwaat mais limu mu moy ñi nga xamné ñom lañu dendal muy Mali Burkina ak yooyu ak yooyu yan relation la fas doxal ak ñom yoy yep journaliste yi fi tew tay ñom ñoo fas yéene mom ak mom waxtaan wi monsieur le président Euh, ñu lay nuyu nuyu bi gën a tedd di la gërëm di la sant li nga accordé sa entretien bu njëkk journaliste Sénégal. maa ngi lay fay soxna si di nuyu Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi seetaan di am mbégte kontante bu mag a mag a mag bokk plateau bi ak euh, kàngam yi euh, presse sénégalaise jël tey ñu teewal leen fi pour ñu seq waxtaan ji tey. kon euh, sant yàlla bu baax a baax gannaaw bu ñu yàlla mayee ñu mën koo waajal mën koo fekkee tal ko ba di ko def ci waxtu gi senegal yi yëpp di ñu teewlu fii ci Sénégal ak ci diaspora bi. bi nga jëlee nguur gi ak léegi toll ci ñetti weer euh, fukki fan ci weeru sulet bii la woon. Euh, nguur gi nan nga ko dundee bi nga fi duggeeg léegi si koo xamante bi nee nañ mooy président africain bi gën a ndaw euh, bi gën a euh, néew ay at bokk ci nu ma ko mën a waxee Sénégal ba mu amee indépendance ba tey tamit yow yaay ñeenteeli président bi yaa ci gën a tuut ay at est-ce que yaakaaroon nga ko ak bu nga duggee ci pale bi ba tey loo yëg sa yaram ñetti weer yi tam noo ko dundee. waaw balaa may gën a sori damay delluwaat rek di sant yàlla bu baax a baax. te di ndokkel sénégalais yi ndokkel umma bi yépp ci at ku bés nga xamante dugg nañ ci di ñaan yalla mu def ko atub xéewal atub natangé ak atum jamm ju bari ci aduna bi waaye rawatina fi ci Sénégal wat tamit sant yalla bu baax ci nawet gi nga xamante ne dugg nañ ci ak jamm di ñaan mu sotti fi ndox bu barké defal ñu tamit nawet gu am natangé te sénégalais yépp mën ko fekkee ci buñ koy góob mu bari lool te doon loo xamante ne jëriñ na askan wi di delluwaat jaajëfal presse sénégalaise waaye ci presse sénégalaise tey ndokkal sud ak seen naataango gi leen teewal fii tey ndax ren la am 30 ans muy 30 ans ci ouverture démocratique presse sénégalaise joué ci rôle bu am solo kon mel na ne tey rek su ma ndokkalee sud ndokkeel naa journaliste yëpp à travers sud ndax sans ñoom xëy na démocratie sénégalaise bi nga xamante ne ñu ngi ñu ciy bàkk di ñu ci kañ te naw ñu ci bu baax a baax kon du am ndax presse mënta am démocratie mënta am sans une presse forte te pionniers yi mel ni sud ñoo wone yoon wi ànd ci jafe-jafe waaye ñeme ko ba xàll yoon wi ba tey contribution boobu ñu continuer nekk sentinelle yi waaye continuer nekk tamit promoteur yi kon gàcce ngalaama sud waaye gàcce ngalaama ñëpp ñi nga xamante ne ay journaliste lañ liggéey liggéey boobu de génération en génération ba fi ñu toll nii. bu loolu weesoo nag certes nguur de wax dëgg yàlla sant naa yàlla bu baax a baax naka laa ko dundee avec bokk de sérénité. ndax même bu fekkoon na sax ñun suñu parti politique nuñ ko waajale woon dañ ñoo mayoon afiya ba ñu defee ko noonu maanaam jiital ku ñu bëggoon a jiital mu nekk président de la république ñun ñu àndoon ak moom day mel ni yenn wiñ ko yen ku na ci ñun lañ ko yen kon noonu lañ ko xalaatee woon noonu lañ ko waajale woon suñu bopp ci pression bu mu roon àndal tout le temps dañoo mës di wax ni du rek jël pouvoir bi sax ci la contrainte bi nek waye boko jëlé ba paré urgence fi nek ak ni lay sénégalais di yakamté nga taxaw ci li nga xamanté ne tax ñu fal la kon ni mu diisee ci man non la diisee ci képp ko xamanté na bokk na ci ñu porté won projet bi pour ñu jël li nga xamanté moy confiance bi ñu sénégalais gi dénk kon pression bobu yag nañ ko dund donte ñu won candidat parce que dañu nek ci groupe solidaire nek ci parti politique jaar ci ay xat-xat yu bari waaye nak da ngay xam bo boo jeune président de la république ñu lay wax ne sax xéne ñi nga xamante ils sont démocratiquement élus ya ci gëna néw la yatt mm-hmm. waye nga nekk président askan wo xamné ne ah dafa am ay exigence am ba tax sa yu démocratie mosee dem ba am ay jafé jafé rek mm-hmm. askan da fay taxaw défendre ko. De am exigence de plus en plus ci reddition de compte ci bonne gouvernance ci prise en charge ay aspirations yu gëna mag

ñu mën a defar li nga xamante ne jàppoon nañu ne mu ngi yàqu te bi ñu toogee tamit gis nañ ne fu ñu natoon yàqu-yàqu gi rek romb na ko kon opportunité boobu ñu am pour servir dañ koy sante yàlla ba pare def ko honneur bu mag bi ñu peuple sénégalais bi jox ñu war ko ko delloo ci liggéeyal ko guddeeg bëccëg suba ak ngoon mm-hmm. ba bu ñu fay dem mu ñuy jëf ay jéego yu bëri ci ni ñuy saafara jafe-jafe yi ba keneen bu ñëwee tamit am fu mu tàmbalee dem ndax certainement ni ñu remplacer nit noonu la ñuy te bëgg nañ tamit fu ñuy jaar ci ay multi multi jafe-jafe ba toog kii ñëw tamit buy toog mu sedd parce que askan wi wane na ñaar wane na que mën na taxaw démocratie défendre valeur democratique ak liberté waaye wane na tamit bu fekkee ne om politique yi nekk nañu à la hauteur askan bi mën na nekk à la hauteur te yàgg na nekk à la hauteur maanaam dem voté ji ci jàmm delloowaat seen kër yi bët set ñu dem liggéey kon on a un grand peuple may am mbegte gu rëy di ko ndamoo nag di sant yàlla gannaaw bi mu defee bi ma nekkee président de la république ma an askan bu mel ne askanu Sénégal di askan bu bëgg jàmm waaye askan boo xamante ne tamit jaloore gi nekk def nañ ko fi te fas yéene taxawu tànk yooyu pour de génération en génération ñu gën di am taxawaay gu ñu leen di respecté te yaakaar na ne tey fu Sénégalais dem am na mbégte goog ak fierte boobu ci nu ñuy bakkee ci biir Afrique ak ci biir ci ci fi génn Afrique. ñu ciy sant bu baax a baax monsieur le président jërëjëf euh, ndey Mariam nag am na question bu ko soxloon jëm ci état des lieux ak réew mi fi nga ko fekk ak na nga ko fekkee. Mhm. jërëjëf Fatou son excellence may feddaliwaat sama nuyoo ci sama tour ak turu groupe Sud Communication bi nga xam ne ñoo ma yebal tey jii dañ fi dajaloo ngir waxtaanee wala boog ñu def xayma. xayma sax tel na ci ko xamne lañ la tab ci diirub juromi at wante baax na ñu taxaw setlu xol ba xam biñ fi nekké ba légui fan nga jëlé réew mi ak fan nga ko fas yéenee yóbbu bi liko wundu li ñuy tuddé état des lieux manam bi ngay soog di yexsi naka la keesu état bi meloon ndax permettre na len lepp lo xamne ne dafa nekkoon ci li ngeen mabaton ci rewmi ngeen mun ka dérouler wala bok dafa jafe woon jafe na gis nañu ne ci diru ñaari weer def ngeen lu ñuy tuddé levée de fonds ba am ay eurobond muy koppar bu ñëw dollee si ci dette bi nga xam ne boot bi nga xam ne réewum Sénégal def ko amale ndax loolu lu mu wund moo moy ne fekku leen fi dara wala boog état des lieux. waaw ah, d'abord euh, dama bëgg a préciser rek maanaam leeral ne lii ñuy def nii tey du pour def bilan ndax bu fekkee ne mandat cinq ans la te at wu nekk nu mu tuuti tuuti trois cent soixante cinq jours la. kon xana mën nañ japp ne man liñ ma appal 1825 jours la 1825 jours nak do ci def 100 jours nga ne ma ngi def bilan lolu c'est mais exercice la bo xamne dafa am lu ko wundu te jarna tamit leral bala may ñew ci laaj bi nga laaj bi may dem France yagul dafa am ay journalistes yu nek bitim rew yu bari yu demande defone ay demande d'interview mané duma dem sama première sortie ma diko jox presse étrangère kon balaa may wax ak jawaa bitim réew bu dee askan wi laay waxal ma jaarale ko ci presse Sénégal ba pare mu wóor ma ne tamit feeg ak diir dinaa delluwaat te mën na am ñu defaat même sollicitation yi te mënoo dëkk dina déedéet déedéet ma ne kon jot na gannaaw bi ma fi tooree trois mois parce que man ñetti weer sax laa jàpp na laa def man nekkuma ci bilan cent jours deux cent jours trois cent jours maa ngi ci def naa ñetti weer diggante bi jot nañoo xool am lu ñu gis am lu ñu nekk di saytuwaat am na jot app bi jot na pour ñu mën a toog ak presse sénégalais yi à travers ñoom ñu wax sénégalais yi effectivement fii lañ jëlee réew mi jéego yi jot nañ ko def waaye loo gis rek lii moo ko waral pour sénégalais yi gën a mën a comprendre suñu démarche gën ñoo mën a gunge bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool fan laay jëlee réew mi première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalaï dafa am ñi ma ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ma yàgg di leen suivre woolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk lii approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll bi ma commencé def exercice boobu am na li ma gis lu ma jaaxaloon loo xamante ne buñ ci bàyyiwul woon xel xëy na mënoon nañ avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que SAR amatul approvisionnement parce que fekk nañ fi loo xam ne ci wàllu wax dëgg yàlla doyoon na waar waaye xel na xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax wo direct DG Sar bi mu ñew ñu waxtaan ak mom mu am ñu ñu wax wo DG Senelec wo directeur du commerce intérieur wo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget wo ñeneen togg ak wa FMI wo ñep ci lañ xamne situation bi ñu fekk ni xawna doy war trop trop trop trop pour dire le moins waye taxna tamit ñu gawantu jël suñu matuway ba bateau bi nga xamantene ne defoon na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ko won ci sar ñu defi pexé ba bateau bobu ñu fay ko ba benen ñew ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mëna assurer approvisionnement wu ak hydrocarbure mu wor ñu tamit duñ tok weer rek courant coupé ñu fekk tamit ay yenen bir yu doon nit ñi doon gaawantu di def parce que xamnañ ñu ngi dem ma jël ci misal rek xeyna dinañ ci egg ndox nit mën na bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le 29 mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wutu ñu mu àndal signé arrêté pour yokk ndox mi le 29 mars kon dama doon toog rek facture yi facture yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñuy doon baral boobu dafa guma sax prestation de serment ci laa woole ministre de la santé de l'époque nee ko contrat tel tel tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen ja ngeen yaakaar ne sax loolu mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñu woon di ko exécuter parce que le

ma gis na nu ñu ko tegee le intérêt Sénégal yi ça n'a pas été préservé mu ne leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offres pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont pris en compte te bés bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà réalité finance publique Sénégal dañ ci njàgg am doute ak certitude ne que am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finance bind FMI bind banque mondiale ne leen ni ñu gisee ñu saytoo finance publique u Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu nous def lolu am ay nous jafé ñu ngi signé ay décret pour que ancien ministre ñu décret pour ce qui est d'autres travailleurs d'autres secteurs jël engagement yo état jël mu ci mu xam dañ surtout que ñun ñoo doxal am responsabilité cinq prochaines années lolu and ak environnement boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale nit ngi subir les effets de la crise Covid-19 De di subir effet de guerre Ukraine ñu ne mu une guerre au Moyen-Orient boo xamante ne xamuñu fan lañuy fan lay mujj kon évidemment conjoncture internationale c'est une conjoncture très difficile dëkk bi tamit nekkul na de lépp daf fi amoon jàmm rek ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne xam na de 2021 ba 2024 bi bi bi may Sénégalais. di jox yi mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jële jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon surtout les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamantene ne dès vingt heures ba minuit presque ñom ñëpp félicité félicité nañ ma ni nit ñi ragalé ragalé bitim réew xam ne que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité bo xamné malgré conjoncture bu metti malgré malgré situation yu bari continuer nañu di def confiance ba Sénégal mën def loolu ñu am tamit ay ministres yo xamantene xam nañu seen liggéey notamment ci walu finance ak walu coopération ak ñi nga xamantene jël nañu leen ci domaine bo xamne mën nañu woné yoon wi ya ko waxal sa bop da nga fay fekk ben situation bi nga xamni doyna war suñ la suñ la déggé et pourtant dañu tok euh, ñaari weer lu matul ñaari weer lepp lu nekkon bourse wala agriculture danaka bam dess ben buñu wara auditer nga dal di koy fay ñu ni déta way nga ni da ngay wàññi dund gi le ministre des finances néna lu toll ci juroom fuk ak ñent milliards lañ ci duggal Nous xaar yeneen pàcc yoo xam dañ ko wara a wàññi yu ko courant alors sénégalais bi tay lan la bëgg xam moy naka ngeen def ba mëna supporter lu ñu mel ak ba kañ ngeen ko mëna tenir. d'abord il faut question de réallocation de ressources là et du sens des priorités vent d'espoir bi ànd ak suñu élection ak peuple sénégalais lu mu xaré tànk tubéem ci défendre les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques. dafa mérité woon ñu sargal ko ci loolu dama ko waxoon benn jour que bi ñu doon def campagne électorale nit ñi di daw toujours am na échange ak dialogue buy am ci diggante ñun ñu nekk ci kaw oto yi ak ñiy daw di wër suñu oto yi luñ ñuy wax mooy sonn nañu wàññi leen dund gi dañoo bëgg liggéey en tout cas seen doléance dañ koy dégg nga xam ne coono coono ngi ci askan wi kon boo ñëwee évidemment nit ñi waxoon nañu ne que duñu dem nit ñi waxoon nañu ne que mënuñoo wàññi dund gi même bu ñu waxee ne dinañu wàññi am na ñu toog ñu nekk ci secteur yi toog tele ne c'est impossible mais luy suñu fort mooy mosuñoo gëm impossible te bëgguñu xam sax lu impossible parce que loo xam ne c'est impossible rek doo ko jéem bañ a xam que nangam ak nangam c'est impossible moo tax ñuy def l'impossible kon ut nañ ay ressources am na lu ñu am am na loo xamante ne mu ngi fi woon ñu waroon ko alloué loo xamante ne du urgence am na loo xamante ne état do moo ko doon jël di ko di di fas yéene ko yenn ci ba renoncé ci ay recette maanaam bàyyi ay tax ak leneen ak leneen ak waxtaan tamit ak partenaires sociaux yi parce que ni ma waxtaan ak syndicalistes yi waxtaan ak secteur privé yi ñu toog def ay travaux ay séance de travail ak bi premier ministre ak gouvernement ci la ñu xamee ne tamit que na ñoo xamante ne xëy na seen marge war nañoo mën a def effort budgétaire boo xam ne ak li état bi jot a def ak ñoom buñ ko xoolaatee am na foo xamante ne mën nañ copp comp fu ne pour pour gën a oyofal yéen wi sénégalais yi ba fan benn certitude rek laa leen mën a jox mooy suñu engagement ci noppal sénégalais yi du wàcc mukk te lu ñu am ci ñoom ci yërmande rek

pour ñu mënul nek mais ñu gis par exemple que nous nous jënd farine mais même jour même même même même fournisseur ci même bateau bi ñu jëndé ci même personne bi ne avons Nous, ne parce que wax le secteur privé ils ont joué le jeu aussi il faut ñu sargal ci nous ngi am jar na ko secteur yu bëri ci approvisionnement ñun ñu teelu ko suñu bop dem jëndi bu ñu andi ku doon importer ñu la demal nga fay ci banque bi nga jëwul nga ñëw lever li nga xamantene mom nga soxla won ci quantité bu boba dinañ am une maîtrise du coût d'achat dinañ am maîtrise ci dédouanement bi té dinañ am maîtrise ci stock de sécurité bi et loolu identifier nañ ay produits yu bëri yoo xamante ne fas nañ yéen ko fas nañ yéen ko ci def bu conseil des ministres nous naa nañu sur une agence de centralisation de la commande de l'État du Sénégal liñ ci fas dans la logique de la réduction du train de vie de l'État Nous avons a rationaliser déjà lépp li nga xamante ne dañ koy engagé par rapport objectifs yi ñu fournir mais c'est pour permettre que lu ñu doon jënd fekk ne yow cent nga ci soxla lu lay coûter boo ko dajalee woon jënd mille évidemment ci mille bi lay gën a moins cher que boo jëndee cent mais bëri na loo xamante ne tey dañuy bàyyi direction bii mu jënd bàyyi direction bale mu jënd bàyyi direction bale mu jënd te lépp di jóge ci même budget bi kon au lieu ñu bàyyi ñëpp di jënd day def centrale d'achat pour toute l'administration publique pour que ñiy jënd bu ñu dajee loolu mu gën a bari ñu mën a jouer sur kon instant yi identifier nañu ay niche yu bari yoo xamante ne mën nañ def ay jéego pour réduire le coût des ressources que bi état bi de engagé pour mën ko jël dugalaat ko feneen yu mel nii agriculture lu mel ni leneen ak leneen par exemple bu ñuy ñëw ñun yaakaaroon nañ ne que trois mois yu ñu fi nekk du ñu mën a waajal campagne agricole kon xëy na nit ñi ñu ngi doon xaar que nu ñu góor góor góorgóorlu lu ñu def daaw la ñuy mën a def mais lañ lañ def dañoo ñëw ne naka la doon demee ñu expliquer ñu ñu ne leen du ñu deferee noonu dañuy wax ne état soxla na tant engrais soxla na tant semence ñu ne par exemple pour engrais bi kan moo ñu mën a jaay tant de tonne nit ñi def ay offre def ko sous fermé ñu kan kanamu ñëpp ñu dem jël le plus le moins cher pour le même type de produit parce que man suma soxlaa soixante-dix mille tonnes d'engrais daaw c'était trente-cinq mille ren soixante-dix mille lañ ci def donc double nañu ko ñu ne leen boo demee ci kenn rek ne ma jaay ma bu la waxee ne cent lii laa lay jaayee doo ko mën a dindi mais boo nee yéen ñëpp xool leen ku ci ne ñaata nga ma koy jaay da ngay gis ne kii bu la ko dee jaayee ñaar fukk kii dina la ko jaayee fukk ki juróom kii jaayee la ko fukk nga dem tànn bu gën a oyof c'est ce qu'on a ba mu permettre ñu ñu wàññi ren engrais de 22 pour cent du prix te gis nga prix bobu ñu am ren déwén prix bobu dañ koy wat. kon engrais gën na moins cher ren waaye gën na bari déwén tamit dina gën na moins cher par rapport ak ren te dina gën na bari inshallah rabbi. monsieur le président ci pexé yoy nga xamné eh, wax nga ni eh, yeneen koy dérouler pour faire face à la situation ak tenir ses engagement lu mel ni wañi prix ak yini mel bok na ci tamit. yokk ressource internes yi ak ressources externes yi loolu mu ngi ñuy yóbbu ci mbiru fiscalité mooy lempo bi euh, euh, entreprise am na si yu bëri bokk yoo xam ne ñu ngi naan dañ leen a xoj fu mu nekk nii ba tax na sax boo moytuwul dinañ wàññi liggéeykat yi wala ñu wàññi seen production te loolu day am njeexital ci koom-koom bi laaj bi mooy euh, lan mooy sa vision yow ci fiscalité Euh, nan lañ mëna a yokkee ressources yi en même temps wañi subvention yi gannaaw engagement bu état bi jël euh, euh wañi njëg yi euh, optimiser les dépenses de l'État y compris les dépenses fiscales donc loolu yëpp yow nan ngay résoudre équation bobu sans gagne économie bi notamment entreprise xam nga ku ci nekk ku am formation rek am nga déformation journaliste bi amna na déformation professionnelle kenen amna na déformation professionnelle l'inspecteur que je suis des impôts et amna am déformation sama déformation moy dama japp ne que dund ci communauté manam ci askan mënul nek bu ku nek amul loy jël di xagn sa bop di duggal dugal pour ñepp bokku ko parce que dafa am lo xamantene nit mënul ko bopam ku génn fii ku la ëpp doole song la këf sa portable sa premier réflexe mooy dem police wala dem gendarmerie mais boo demee police lan moo tax police am parce que état dafa jël recruter ay nit former leen di leen fay équiper leen boo soxlaa justice da ngay dem ci justice parce que état dafa jël ay nit former leen équiper leen di leen fay salaire mais loolu mënuloo sa bopp mënuluma ko sam bopp su ma jógee tey ne damay dem Ndiaganiao ci tëli laay topp mënuma tabaxal sama bopp tëli di ko topp de Dakar à Ndiaganiao kon am na loo xamante ne nañu nangu ne que nguur rek moo ko mën a def mais nguur fan lay jëlee xaalis bi ku ne xam na nañu dañuy xëy rek dem dagg ay suñu billet commencé jënd lu ñu soxla demewul noonu kon ku nekk da ngay xool ci loo am ñu comp ci tuuti nga dugg ko ci gafa gi ñu dem gafa googu nag saytu ko nu mu gën a rafetee pour jëriñ askan wi man bi may nekk inspecteur des impôts et domaines mën ngeen ko dem seeti ji bu ñu commencé di def ay remise gracieuse maanaam di baal impôt ay nit 2016 lañ def suñu conférence de presse ne lii jaaduwul attaqué ministre bi ñu ne ñu dañoo génn obligation de réserve ba menacé ñu pour ñu pour dàqu ñu waaye dañ jàppoon ne dafa baaxoon sénégalais yi xam ne que am na ñu ñuy baal ay impôt waaye am na lu ñuy ñu ñuy noggatu tamit di di leen pressé pression gu métti bu dee dañoo ne par exemple dañoo soxla sept mille milliards ne sénégalais yi koy joxe bu ko dix huit millions yi sénégalais yëpp joxe woon ku ne dina oyof ci yow waaye bu ñu bàyyee dix huit personnes joxe ko ku nekk day gën a diis ci yow donc il foo que ñuy répartir charge fiscale bi. ma yàgg jël sama dossier tamit liggéey ci gis fraude fiscale notifié ko. ay nit ne ma bàyyi ko parce que mbokk diw xaritu diw la wala wala wala ma dem ba yàlla dogal ma téye la ngerew mi ma gis ne que lu ñu soxla lépp ay urgence la ci liggéeyu ndaw mi ndaw ñi ci infrastructure ci lu ne ci formation professionnelle ci agriculture ci lépp lépp lépp tout est urgent ma ne mais xaalis bi fan lañ koy jëlee bu fekkee ne tey amatuñu marge pour dem lebi ji parce que avant ñun diggante deux mille dix neuf surtout ak deux mille vingt quatre dañoo leba leba leba leba leb ba am na foo xamante ne mënatuñ ko leb parce que encours bi ñuy fay chaque weer ci bor yooyu dafa dem bët dix ci état bi boo moytul bu ñu continué noonu dootuñ ko attanu ci te kon mën na créer problème kon lan moo des xool ci biir réew mi ñii fay ñu nee leen gàcce ngalaa ma continuer leen fay ñi fayoon ñu ne leen nag kaay leen nag ngeen def ni ñëpp parce que fii amatul kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu mooy jubbanti jubbanti nag bu nekkoon lu ñuy naan dañuy na ndox mu weex tàll la ndox mu weex xat la parce que neexut li gën a confortable pour quelqu'un koo xamante ne daawul woon fay impôt mooy ñu bàyyi ko rek mu bañ a fay impôt que yeggul métit bi mais bu mu ko buñ ko bàyyilee mu bañ a fay impôt boobu tamit mu ngi ñeneen a ngi ci loru dañoo ne juste ñu dul woon fay gars yi leen ngeen fay ñi nga xamantene dañ leen doon jàppal tànk amatuñu ku leen jappal tank parce que ñepp dañu wara contribuer kon performance yi nga xamantene administration fiscale ñu ngi koy def dès 2014 la ANSD def un rapport ne les performances administration bi kese kese kese lum ñuy côté ci perte de recette 214 milliards la manam sa ñu defan réalisation bu at bi jeex bu ñu nekkoon à au max de nos performances mënoon nañ def 214 milliards supplémentaires ñun à l'intérieur xamoon nañu ne ëpp na 200 milliards di dem par rapport ak li nga xamante ne war nañ ko mën a def beneen bi nag mooy man du man maa inventé impôt de déedéet ñun ñi nga xamante ne ñooy suñu ndaw ñu ñuy teewal assemblée nationale ñoo dem assemblée nationale voté code bu ñuy wax code général des impôts chaque année député yoy voté loi de finances au nom du peuple pour wax askan wi président de la république am nga autorisation dem jëli ci xaalis ci askan wi jusqu'à hauteur de temps bu doyul jox nañu autorisation pour nga dem leb ji kon ñun ñoo consentir ñun ñoo nangu ne que dañuy jël ci suñu alal jox ko réew mi pour ñu mën a liggéey pour mu mën a liggéey loo xamante ne ci njëriñu askan wi la dans cet exercice, tout le monde est obligé de participer. Maintenant, pression fiscale, en réalité, ce n'est pas une pression en réalité. C'est qu'on a juste fait sauter un verrou de blocage pour donner privilège à certains, ba pareil, di gën a l'offre ñenn ñi nga supporter la pression mais loi boobu wax sorti ni sart yi la loi Bobo, moo wax ne ku ñëwul nan lañ maanaam bu ñu xaaree nit mu war a fay fayul te charte yi tegoo nañ ñoo xamante ne dafa war a fay loi dafa ne dañ koy njëkk a bind ne ko ah amel nga ñu lii bu tontuwul lu mat weer ñu jàpp ne luñ ko wax dindiwu ko bu tontoo bu nee lu mu wax ne nanguwul din andi ay firnde ñu ne ko kon ñun ñoo juumoon dindi nañ ko bu fekkee ne nag am luñ ci d'accord am luñ ci d'accordul dinañ confirmer lii bàyyi lale mais ba tey du loolu mooy tax ñu dem saisir ay comptes dinañ demaat ci moom nee ko kaay fay amu am possibilité ñëw ne ah d'accord li ma mën a fay nii laa ko mën a fayee muy moratoire bu demee nag ba respecté wul loolu yëpp yenn saa nag mooy waral ñu dem bloqué compte yi ne ko nag ah ñun xam nañ fa sa xaalis nekk te bu ñu fa fekkee dara nag foog ñu jël loo xamante ne réew mee ko moom balaa muy ñëw ci yow kese kon lii rek la nit ñi def mais yaa mieux loi boobu dafa ne boo demee jël impôt ci ay nit que mu nekk TVA boo facturé wala mu nekk retenu à la source boo def ci ay nit maanaam fay leen salaire tanq seen impôt nekk da nga koy reversé ji téye ko mais loolu tudduwul neneen lu dul détournement de deniers publics maanaam boo amee salaire yi nga waxtaan ak moom ne weer wu ne da nga koy fay cinq cent mille weer jot nga fay ko quatre cent cinquante mille ne ko yoon moo ma ne ma tenq ci cinquante 000 pour sa impôt ndax citoyen nga Sénégal dajalé ko ba mu nekk 100 000 cent millions 200 millions bañuy wax sax ay milliards nga téye ko pour défar sa bop lolu détournement de deniers publics bo xamantene de la même façon que un ministre wala un directeur général des impôts ou un directeur général d'une administration wala wala d'une société nationale nu muy défé détournement de deniers publics amul différence détournement détournement la yon na yon wax na nag ko def loolu lan la yoon wax loolu lañ la war a def du man maa koy wax de yoon bu ñu voté moo ko wax mooy dañoo directeur général des impôts dafa war porter plainte ci procureur de la république te dès que cette plainte là est portée ñu gis que les faits sont réels le mandat de dépôt est obligatoire pourtant ba nous ñu toll nii porté plainte contre kenn pour ñu jàpp ko mais xool leen actualité internationale dans les pays yoo nous ne développé pas nanguwuñu kenn foowe impôt te dañ ciy tëj ay nit di ci topp ay nit mais ba léegi defuñu ko parce que dañ jàpp ne que am na pédagogie bu ñu war a dérouler sensibilisation ak éducation citoyenne waaye ku ci nekkul dëgg ci dëgg nag xamal yow nekkoo ci dëgg nga jéem a ajusté wu et puis dans la préoccupation bu ñu am tamit pour soutenir le secteur privé et c'est une préoccupation forte ci man ñu gunge leen luy leen war loo lu leen war ñu def ko mais ñu xool naka la gën a oyofee ci ñoom mais nag temps bi ma nekk ci kaw réew mii bu soobee yàlla dina am ñaar ñoo xamante ne ñaar yoo xamante ne moom ku ci tëdd sa xel mën na dal mën na ci dal mooy fay impôt dinañ ko gën a fulaal ci réew mi waaye impôt boobu buñ ko jëlee ba dugal ko ci loxo euh, euh, trésor public dinañ ko saytu ba fu mu war a dugg mu dugg foofu te ku ci def naka sul noonu yoon yoon def nu mu prévoir na loolu la war a def président euh, sakkanal poosu askan bi nekk na lu la yitteel te gis nañu euh, plusieurs fois nga bamtu ko euh, mu am nag loo xamante ne bi ngay dog a yegg si nit ñaa ngi ko doon xaar am na fi ay kër yu fi nekk yu mel ni au conseil du dialogue social am nañ fi HCCT am nañu euh, conseil économie sociale environnemental ñu ngi wax sax ba ci fonds politique yu président de la république ñu naan euh, dañ doon xaar mu supprimer ko mu bëgg a xam ndax da nga changer avis wala déet beneen bi mooy am na ay audit yoo xamante ne tàmbali ngeen ko yaa ngi koy wax léegi nii euh, ñi nga xamante ne nii dañ leen di topp bu ñu defee faute de gestion ba gis ko lan mooy doon seen atte bu dee ay résultats am na ci yi ngeen jot a dooratu lan la ak naka lañuy def ba jubal euh, fexe boo yoree xaalisu askan bi mu nekk une règle ñu bañ a euh, di ko salfaañee euh, loolu itam lan ngeen di def pour que nit yi jëfe ko nga baal ma mu dolli si benn bu ndaw rek mu di gis nañu it bi nga faloo diir nekk nga ci benn hôtel de la place ñu bëri naan président lu xew ndax pare dañ fa sotti ay xar fa fuufa wala dafa am lu fa nekk ba tax demagul ba léegi ndax loolu ñu ngi doon xaar poos itam ñaata lay coûter li nga xam ne mooy sénégalais bi boo fa yàggee d'abord man bima falo avant may falo sax dañu def campagne électorale pour commencer fi nga mujjé def campagne électorale ba pare ma ñibi sama kër wajalé fofu dem voter ji bi ma ma sama kër ñu né ñu nak bu ñu noppaloo nañu jël fenn fo xamanteni dañ fay wéet parce que militant suñu parti mom ak suñu coalition dañu xawa xër ñu ne bu ñu nekkee ci kër yoo xamante ne xam nañu ko wala ñu dem siège duñu mën a liggéey ak dal pour suivre résultat yi ci la ñu dem jël quartier général hôtel de la place pour ne pas le nommer buñ fa demee ñu commencé suivre résultat yi ba guddi gi jot bi guddi gi jotee heure yi wala lu ko romb ñu commencé ne kii kii gañ gañe na dès que gañe naa rek la sécurité de l'État commencé ñëw tamit récupérer pratiquement seen président mu am ay exigence ak charte nag par rapport à la sécurité mënatuma dellu sama kër bëgg naa fa dellu ay yoon ñu ne ma xool nañu ko mais pour assurer sa sécurité du foofu nga mën a nekk sinon waa koñ gi dootuñu dund te dootuñu am fu ñu génn ma toog hôtel Azalay ba jekki ñu nee ma fi ma toxoo mooy King Fahd am naa fa suite boo xamante ne su ma fa demee du ma fay ma ne kon naa fi jóge gaaw ma jóge foofu dem waaye pour vous rassurer ay nu mu tuuti tuuti ñetti semaine jóge naa foofu ñëw naa fii nii donc du question xar-xar foofa du question rien du tout question doon xaar ñu defar fii la sax parce que fii tëgguñu ko pour euh, ni ma ni ma ni ma mën a dëkkee sama njaboot ma mën a dëkkee noonu c'est pas construit pour ça dañ ko tabax pour papa yaay dom man nag nekkuma ak papa yaay dom dama nak ak papa yaay ak yaay ak ñeneen <laughs> donc du coup il fallait kuñu ñu donc buñu ñu travaux yi jël nañu luñu wara jël buñu paré ñëw na dëkk ci du affaire xar xafu fa du affaire rien de tout ma instant yi fa la joggé bu ma joggé fi fa lay delluwaat incha donc lolu c'est par rapport ak euh, dëkkuwaay bi par rapport ak euh, rationalisation train de vie de l'État effectivement nous avons un engagement par rapport aux institutions changé wuñu ab yi yoon Oui, c'est des institutions qui sont prévues c'est prévu par des lois pour nga changer ko faut nga dem changer ci la charte fondamentale wala nga changer sax yenen loi yo xamante bu la ko majorité qualifiée joxul doo ko am te kone ne xam na ñun majoritaire guñu assemblée nationale kon am na loo xamante ne boo ko songee tamit heure bi doo ko am beneen bi mooy ñu war a jël temps nag amul yàkkamti parce que depuis un bon bout de temps vous vous en rendez compte nous génn de la logique des urgences nekk dans une logique de long terme bu tax ñu dal di jël temps pour être sûr que les choix yu ñuy def c'est les meilleurs choix pour Sénégal pas les meilleurs choix pour moi, ou pour Kenen, mais les meilleurs choix pour le Sénégal Mais beaucoup xoolee wax la rationalisation train de vie de l'État ça suffit pas nga dindi HCCT dindi CES dindi Il wax la sang par rapport à la commande de l'État wax la sang par rapport à aux méthodes d'approvisionnement de l'État que ce soit ci tchibi, que ce soit ci hydrocarbures yi nga le FMI mu ngi wax que lu ñuy def ci subventions dafa bari ñu war ko par rapport au à l'énergie. énergie nous, nous ñu c'est faire de meilleurs prix d'approvisionnement pour baisser la charge d'approvisionnement pour ba de frais def et ils ont raison par rapport aux subventions parce qu'en réalité les subventions, nous, avons koy des faire de xaaj qui seen ñi ko du coup c'est lourd pour auditer. le corps de contrôle est en def de faire amna lo loo fekk nañu ko fi ci ay rapport ñu doon wax ne dañ ko teg ci conc man awmu mu bi may teg ci ben rapport rapport yi ma fekk ñu paré genn nañ rapport yi ñu nekk di def genn nañ à la 5e année rapport yi nga xamantene ñi fi nekk di gérer te ma te ma tàbb leen fay ño fay ño fay nekk seen rapport tamit day genn bu rapport genné nak ñi def rapport ñi def mission bi yana say ñu ne dañuy demander ouverture enquête judiciaire procureur lañ koy jox bu boba procureur dina def liggéeyam parce que bu man rek ken enfreindrul benn yoon liggéeyu liggéeyu attekat yi mais nak na nit ñi li nga xamantene mënu ma nek ci logique bobu man duma duma koy fayantu nan bu ngeen démé xol sama émission yu yag lepp luy en ak mer ak fajjal faj sa mer man nekkuma ci lool man lima metti ñu togn mako man ma mom ko man lol dama ko baale parce que dama sante yalla ci fimu ma jaarlu donc topan ci kenn ci lenn mena nit noko bëgg bëgg top tamit fokk nga am loko topé man mënuma né nit ñi liñ fi doon défé yoon jaaru jaadul ba ma pour ñu xolaat yoon nu muy doxé ba pare may gaawon tudd fayantu pour satisfaire ay nit ño xamanteni dañoo mer mais de la même façon aussi man couvriruma kenn ñi ma fi fekk ñu ñu gérer ba pare ak ñi ak que ce soit pour auditier, que ce soit pour leneen euh, la rationalisation train de vie de l'État et institution yi man amul lenn loo xamante def changement pour ce qui est des fonds politiques dama fekkul sax ay fonds politiques non ma fi ay fonds politiques non j'ai rien trouvé par rapport à lu ñu président de la République fekkuma fi dara dañ ko oui té yémul sax ci lolu kese mais bon yalla baxna na ak lu yalla xam doy na. non non non pour la clarté du débat fekkuma ay fonds politiques yi nga xamante mom lañ wax na lañ appel président de la république. donc li ci dess nak moy liñ wax ci fonds politique yi moy la transparence ak par rapport objectif bu tax mu am. est-ce que c'est des fonds yo xamante dañ koy jox président de la république ak quelque suma nu mu pour mu ci mu am des leviers d'action souvent même social ah Dieu sait que ma toogee ba tey ci li ma sut secourir ay nit ci ay opération ci ay leneen ak leneen tey dama xëy ñu ne ma telle personne opéré nañ ko alhamdulilah rabil alamin ma sant yàlla parce que loolu tamit xëy na bu ma ko deful woon mën na am ñooñu duñu am ci ku ñu dem donc ça peut être important li ci des nag c'est pour d'autres choses yoo xamante demander na que les autres institutions de la république du président kese mën na nekk le président de la république le premier ministre les présidents d'institutions comme l'Assemblée nationale dafa baax pour yenn yi ñu mën di toog di ci waxtaan parce que réew mi tamit dañ ko bokk te ku ñëw dem yaakaar ne yow rek ko moomoon bo demee di nga fi def loo xamante ne di nga ko wàccal te loolooy wane rek moo moo donc dafa laaj de la cherté Fond politique yi hmm? day continuer kenn du ko supprimer non li dañu waxoon ne dañuy dindi fonds politique yi remplacer ko par des fonds secrets hmm. Yo xam ne dañ ciy waxtaan mu am au moins deux trois quatre personnes yoo xamante ne nañ xam de quoi il s'agit ak fan la dem mais ci liñ ciy def généralement ci ay actions yu ñu koy destiné dëkk bu ne am ko du loo xamante ne mën na nekk dans la place publique malheureusement. c'est reddition reddition des comptes yooyu. monsieur le président mhm. monsieur le président de la république. dañoo gis si ay bis yee ñu weesu ñu gis nga dem si géej ga ñu lancer officiellement production pétrole maanaam loo xam ne yëpp askan bi ñu ngi ko doon xaar. ñu gis mais dañoo seetlu ne ci dëkk Afrique yu bëri bu am ressource bu feeñ ci développement dëkk bi léegi ñu doon laaj yan stratégie ngeen teg mu nga xamante ne Sénégal yëpp nañ ci gis seen bopp. beneen bi mooy ku wax ressource minière de façon générale da wax ay contrat jàng nañ ci communiqué conseil des ministre bi weesu ñu ne teg nañ benn kuréel goo xamante day sat day day saytu ko contrat yi. li ñu bëggoon xam mooy est-ce que ñi nga xamante ne seqal nañ ko d'accord nañ pour renégocier contrat yi euh, le cas yéen. fan le Sénégal fan jusqu'où le Sénégal est prêt à aller pour renégocier les contrats. D'abord, euh, D'abord, biñ ko doon à l'époque, sur ci pétrole bi <coughs> le premier ministre à l'époque, président du parti euh, de Pastef fait un livre texte pour l'histoire buñ ko doon wax ñu bëri dañu doon wax ne non benn toq pétrole nous ñuy wax. mais toq bi wàcc mais ci contrat yooyu la ñu doon wax ne bu wàccee naka lañ koy séddoowee boo boo toogee doo boo toogee ba toq bi wàcc fekk nañ wax nañu ba pare naka lañ teg nañ charte yi ñu koy séddoowee ba pare am na loo xamante ne c'est déjà signé kon yenn stratégie yi ñu waroon def yëpp xëy na ñu amoon chance nekk fi ci njëlbeen ñoo ko waroon def xëy na liñ ci def am na lu ci baax am na lu ci des lu ci baax dañ leen ciy bu parce que sur place tout ce qui depuis avant l'indépendance ñu ngi dans la promotion du bassin sédimentaire sénégalais ba gëmloo ay nit kaay leen de pétrole ci rendre hommage appuyé quel que soit seen niveau d'implication maintenant sur la contractualisation si demee ba seddoo am ci diggante multinationale buy investir ak dëkk bi moom ressource bi il faut qu'il y ait un bénéfice mutuel parce que boko ko deful nit ñi duñu ñëw mais ci li nga mëna a am tamit bu ci nangoo bàyyi dara ma conviction est qu'on aurait pu négocier mieux négocier parce que d'autres pays Afrique wala feneen ont mieux négocié pour am le maximum possible par rapport à ces ressources yi donc stratégie li ci des ni mooy xool les pistes de renégociation dinaa ci ñëwaat léegi et surtout bu ressource bi ñëwee ñu xool naka lañ ci sukkandikoo pour développer yeneen secteur pour éviter lu ñuy wax la malédiction du pétrole malédiction du pétrole wu tekkiwul ne que pétrole fu mu am rek day andi ay guerre na non c'est pas ça mooy ñi ko am ba pare jàpp na du jeex ñu sàgganee yeneen secteurs yi ba bi mu jeexee dootuñu xamante nu ñu def beneen tour bi ñu koy jox sax mooy le syndrome hollandais donc stratégie mooy tey naka la ñuy sukkandikoo ci ressources yooyu ñu amee ci pétrole bi ci gaz bi pour suqale yeneen secteurs yoo xamante ne du mos a jeex parce que tant que suuf a ngi am nit ñaa ngi dinañ béy kon naka lañ ciy def pour développer formation professionnelle pour gën a magal digitalisation ak métiers yi nga xamante ne c'est les métiers du numérique naka la ñuy def pour gën a agriculture ak élevage ak pêche ak yu demee noonu donc stratégie yooyu ak xol nak la ñuy yaatalee suñu part dans le cadre d'une renégociation ya ñep ay sédé ngeen bu ñu ñëw ñu né woo la conjoncture internationale dafa metti ay importateur dem tok ci plateau yi wax seen xalaat peut-être en toute bonne foi né duñu mën ñoo def dara amuñu marge na ñoo wàññi dara loolu lañ waxon du wàññi nañu wala wuñu wàññi nañu instant yi tamit ñu ngi mënu ñoo renégocier ma leen ko wax fii dinañu renégocier te buñu ñu renégocier ba paré da ngeen gis luñu amone avant ñuy renégocier ak lan lañ am buñu ñu renégocier ba paré dañoo war a gëm suñu bopp sénégalais yi un pays comme le Mali l'a fait ils ont renégocié te dafa bokk ci lu ñu réussir mooy ils ont fait xam nga code pétrolier bi ngay def pour attirer investisseur toujours day bëri ay avantages mais boo demee ba découvrir li nga war a njëkk a def mooy taxaw pour tëggaat sa code parce que jot nañu gis des ressources, bien parti bokkul ak kenn mosu gis ressource kon bu nit ñi xamé né am nañu chance bañ perdre ils sont plus enclins à investir kon attrait bi amna ba paré le Mali a réussi à ce que ñi nekkoon ci ancien code pétrolier wala code minier ci bu muy renégocier malgré cette clause de stabilisation mu duggal len dans le dans le nouveau code pétrolier et dans le nouveau code minier ñu perdre ay avantages dans un code qui était plus attractif dans un code qui est moins attractif en termes d'avantages ou d'exonération. Et ça, ça va à l'avantage du, Mali. Et pour vous dire, l'expert ay experts sénégalais nous ko def kon lu Mali mënu ko def secteur minier nous mënuñu ko def ci secteur minier alors que nous sommes ko defal ay sénégalais lañu la renégociation dina am tenant compte des intérêts comme je dis mutuels. Le Sénégal bii may engagement l'engagement que jël te c'est ngeen ko ci prestation de serment moy Yakar, dina fi gëna mag dina gëna dal jam dina jam, dina fi gëna am te yor yorin gu dina dina gëna am té bu boba sénégalais dinañ xam que lan moy différence entre yorin gu sell ak yorin gu sell boobaa seront beaucoup plus exigeants parce que xam l'horizon des possibles est beaucoup plus lointain que lu ñuy yaakaar renégociation dina am. lolu monsieur le président. moom ko mayé rek euh, xam nañ ni Sénégal ak Mauritanie.

Pierre, oui, c'est bon. Juste au pétrole, c'est ah, tout. Ah, d'accord, très bien. C'est une petite question. Hamna, c'est une continuité. ñaari Pierre booleel ñaari question questions. ñu bon rédition des comptes yi a abordé déjà avec le président. Euh, je pense que nous avons progresser avec monsieur le monsieur le président. Vous euh, peut-être répondre à cette question Souleymane après mon mignon. Il ñaari ñaari ñaari audit des coûts moo am. audit des coûts bokkul ak du contrat pour renégociation auditu contrat bi pour renégociation bi lu ñu ciy ut mooy un est-ce que procédure d'attribution bi bu dee ay bloc la wala procédure de de de signature yi convention yi wala consensus est-ce que jaar na yoon maanaam respecté na suñu yoon lu respecté wul yoon nag mën nañ ko xoolaat beneen bi mooy est-ce que buñ ko bu fekkee ne procédure d'attribution bi ak de signature bi ak yépp correct na est-ce que lu mu teg ci ay charte ci ku ne ku ne wàccoon ak moom

ndax loolu maa ko ci def ñu door xool nag 5000 francs yi des naka lañ koy séddoowee mais bu dee dafa ne dafa dugal 5000 loolu moo ko wax ñun tamit dañuy dem xool ndax 5000 yooyu mu wax na loolu la dugal est-ce que loolu la dugal bu buñ ko xoolee mu ñu ci 5000 yi ñu gis ne que am na 500 francs yu ci bokkul dañu ne ko ah dugaloo 5000 4500 nga dugal kon fi ñu waroon seddoo wàññi waroon dindee 5000 pour séddoo li des. quatre mille cinq cent la ñuy dund parce que koy tolootuñu noonu ñaar la bu Woodside bi commencé exploiter pétrole def nañu ko am nañ luñ ciy contesté par rapport ak koy yi nga xamante ne wax nañu ne engagé wu nañ ko engagé nañ ko te bu ñu defee audit yi d'accorduñ ci mais loolu c'est un exercice banal dans l'exploitation pétrolière te waa Woodside nangu nañ ko lu muy indi war bu met nag day meg comme procédure fiscale rek mën ngeen di infraction la mu ne la di infraction ngeen xool ba fi ñuy fi ñuy daanu mais gëm naa ne que waxtaan yi bu amee dina am lu wàññeeku ci coût yi parce que ñi def ñu ko def ñu xarañ lañu te yàgg nañu ko def dans d' autres pays pour les mêmes entreprises ñu nangu ne qu'il y a une exagération du des coûts pétroliers mu des beneen bu côté GTA boobu jotaguñ ci mais li ci des lu tuuti la buñ ci jotee tamit on va avoir la même procédure mooy nee leen ah gis nañu ne que li ngeen wax nag moom ngeen dugal tolluwul noonu notifier leen li ñu ci contesté ñoom ñu andi seen réponse ñu toog discuter béykoroog ñuy xol lan lan fan lañ am deug ak ñom fan lañ am deug pour ñu mëna am les vrais coûts qui seront déduits ñu wo cost oil avant pour déterminer le bénéfice bi ñu woyé profit oil kon foofu lañ ci toll merci beaucoup Souleymane merci beaucoup Pierre comme euh, nee nga alam amna lu bari lu mu euh, aborder ci reddition bi xamna dañuy jall euh, ci benen thématique bi nga xamanté bi mom mo soxal urgence sociale yi te xam naa ñëpp mom lañuy xaar ndax nag euh, ceeb beeg diwlin beeg euh, inondation yeeg euh, xale yi seenub liggéey ak ak nan la ñuy gérer nawet bi di ñëw yooyu yëpp ay question yu ama am solo la te aussi lu ñu war a aborder ci waxtaan wi xam naa dañuy joxaat kàddu gi Ndeye Marième

ñu gis ni yow en tant que président de la république su fekkoon dañuy def xayma la lay indi si bopp réew mi ndaw yooyu le daanaka part bu gën a rëy ñoom la ñu am espoir bu rëy boo xam ni sa mun naa wax ni si yow lañ ko teg mais question boobu monsieur le président ba Sénégal moomee boppam ba tey ñeenti njiiti réew ñu ngi woon sa ginnaaw mais kenn su ñoom amul saafara bi nga xam ni moom mooy saafara bu définitive tey nga ñëw am espoir ay ndaw fal la est-ce que question bobu non xam nga d'abord espoir bi nu mu toll ak itam ci ban fan nga fassiyene jaar pour régler définitivement cette lancinante question ci ndaw yoy ba tay monsieur le président de la république ñu bari ci ñom dañu ñak sen bakkan ci adi ñu malgré tout ce qui s'est passé ñu bari ñi ngi continuer également di réclamer yoon def liggéeyam seeni dossier ya ngi suivre actualité gis nga lu xew ces derniers temps lan nga len état du Sénégal une disposition tay jii la mëna tek ba nga xamni au moins suba ku ci yew di nga xamni kat yoon amna lo xamni def nako sen dossier. d'abord par rapport ak emploi des jeunes manam nak lañuy def ba ndaw ñi am liggéey identifier secteur yo xam ne mën na absorber lu bari ci main d'œuvre oeuvre des fois nit ñi nak amul liggéey fekk ne mom boko ko lan la mëna def. formé wuñu ko pour mu def un travail spécifique à part bo liggéey boo xamante ne dooleem rek la ko mën a defee mais ala kuli xaal ki am formation bëgg liggéey mënul liggéey ak koo xamante ne amul formation wala formation des na ñoom ñaar ñëpp suñu préoccupation la maanaam ñi ñu bàyyi xel la ay leviers yu bëri lañu war a yëkkati bokk na ci ñu xool secteur yoo xamante ne mën na mobiliser ñu bëri bokk na ci agriculture il faut que ñu ñaaxaat nit ñi organiser leen pour ñu bëri ñu mën a béy mën a delluwaat ci mbéy mi te bari na ñoo xamante ne bëgg nañoo bay parce que même ñiy dem ci agri immigration clandestine sans formation souvent sans qualification bu ñu demee foofu ci mbéy la ñuy nekk kon li ñuy bay foofu suuf ak ndox rek moo ko def ak xam-xam goo xamante ne mu ngi fi suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi mais xëy na il faut que ñu yokk fi nga xamante ne mën nañ faa liggéey il y avait des programmes qui étaient là, malheureusement, qui n'ont pas été euh, concluants pas que programme en tant que tel mais il y ci niñ ko qui là. Si vous avez ministère de l'Agriculture vous ci fan mu ngi nekk di installer ay coopératives agricoles partout pas pour l'hivernage, mais pour qu'après ça nit ñi mën a continuer am fu ñu liggéey bu ngeen xoolee ministère de la formation professionnelle. mu ngi am di signé ay partenariat yu bari pour ñi nga xamantene ñu ngi dans l'artisanat ñu mëna am formation bu gëna a développé wu am produit yu gëna bax mën leen jaay fi génn Sénégal pour mëna gëna mag mëna gëna employé ñeneen état ci bopam nak conviction bu ñu am du état moy absorber toute cette demande parce que de vocation état motax bo sama discours 3 avril 2024 lima ci doon wax moy dañoo bëgg créer des emplois pour des jeunes sukkandiku ci secteur privé bu am doole parce que état da koy jàppale ndax xam nañu secteur privé boobu mooy mooy mooy mooy créer emploi kon la stratégie c'est à la fois de xool naka lañ leen di former pour qu'il y ait une adaptation entre les qualifications ak les besoins du marché côté boobu gouvernement baa ngi ciy def ay jéego yu am solo pour que ñu mën a nekk produit yoo xam ne non seulement entreprise yi fi nekk dañ leen soxla mais entreprise yi ñëw tamit dañ fi mëna implanté parce que xamnañ que la main d'œuvre qualifiée est là mais qu'elle est aussi bon marché Benen bi moy les autres secteurs notamment le secteur primaire buñu xawa xaw tamit le secteur secondaire naka lañ koy renforcer parce que secteur tertiaire bi rek muy service yi saturé malheureusement l'essentiel des formations fa la Donc, donc bu secteur primaire ak secteur secondaire manam industrialisation gi demee non transformation développé wu bu boobaa dinañ am une plus grande demande de main d'œuvre pour mën a absorber ndaw ñooñu kon cette stratégie là est en pied d'œuvre te incha allah rabi di ngeen gis que dans la vision comme dans les euh, dans le nouveau référentiel dina ci am euh, euh, pàcc gu am solo gu gu gu gu concerne ndaw ñi jël nañ bu baax a baax baax claire conscience parce que au delà du fait même que ñoo ma fal mais daan gis rek ay ndaw ñuy jël bateau wala gaal di génn réew mi naan dañuy uti ji liggéey ba yenn yi di leen ci fekk loolu waxuma sax nga am responsabilité jiite état mais boo duggee ci boo dëkkee ci dëkkuwaay buy loolu di xewee rek war nga am lu la metti te boo taxawee ci fi nga koy saafara évidemment ñàkk conscience c'est pas possible elle est c'est une forte conscience bien avant et une grande responsabilité qui nous incombe boo xamante ne dañ ko nar dañ nar a wàccoog moom incha allah rabbi li ci des nag évidemment peut-être c'est un volet justice du pour ñom ya ya beaucoup de personnes yo xamantene justice bi ñu bëgg amuñu ko won mo waral man bima ñëw du nañ dem dialogue dara xewul li nit ñi xamone ci dialogue moy jafé jafé amna ñi dox dem fi ñi dox dem fi ñi ne nañu ñoom woté dialogue dialogue de la dernière chance nañu waat jam nañu waxtaan jamam am man jé di nañuy waxtaan ci bi jam amé pour ay baña am nañu waxtaan ci lo xamanteni ñoko bok ça traçant les mandats ça traçant les individus manam de question de de de nekul won question Senghor nekul won question Abdou Diouf nekul won question Abdoulaye Wade nekkul woon question Macky Sall nekul question Diomaye te du nek question kuy ñew question askan wi la buñ ko waxtaan ñu xam ban justice lañ bëgg a am prise en charge dossier yoy nak ak sen instruction comme tout ce qui s'est passé autour des rapports xaarul assises lol tamit na leer la mise en œuvre des assises xaarul lay xaaru justice sera faite pour tout le monde et pour le futur comme pour pour pour ñi nga xamante ne jot na xew mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ne dara daf fi xew ñu ne dara en fait ñu ne duñu xool ndax yoon am na ci wàll wala amu ci wàll maintenant les sénégalais yi comprendre moy du man maay yone defal li bul def li pourquoi ma def les assises parce que dama bëgg justice boo xamante ne dafa jël responsabilité am indépendance am di doxal liy cëram ci réew mi ci afia maanaam kenn bañ ko teg pression kenn bañ def intrusion ci fonction pour muy ñàkk indépendance wala leneen loolu moo tax ñu defar assise li ci tegu nag mooy justice dafa am tempoom depuis bi ma ñëwee ça fait au moins un mois que avons soumettre un projet de mouvement dans la magistrature comme nous l'avons dans d'autres administrations parce que nous avons fait beaucoup on aura beau parler de pouvoir judiciaire les magistrats c'est des fonctionnaires ñu un concours comme l'État état du Sénégal recrute les, formez les, affectez les di pour les parce que ne peut nekk peine de façon statique pendant toute sa carrière mais dañuy évoluer en fonction de leur ancienneté de leur grade et des besoins de répartition de ce personnel là C'est ce dara gënu naturel mais biñ je ko depuis un mois j'ai fait def enquête Je ci ñi may war a mobiliser ci service état bi yépp pour xam kan mooy kan fan la jaar lan la def pour que les nouveaux visages yi nekk ci yenn poste yi de responsabilité yi nga xamante ne am na ñi fa nekkoon bu ñu egsee ñu ne ah ñii ñëpp a seede nañu ne ñu jub lañu ñu indépendant lañu ñu mën seen liggéey lañ parce que quand l'homme qu'il faut il a à la place qu'il faut dina def ce qu'il faut amoon nañu justice am na luñ ci am na lu ci baax am na luñ ci war a defar mais terewul que ci contexte justice boobu la ay magistrat defee loo xamante ne sénégalais yu bëri ñu ngi ko doon saluer kon même avec le système existant il y a des magistrats qui ont ne peuple bi am reconnaissance dans reconnaissance ndax sen taxaway mais quand on a di xol dossier bi ki ni il faut que ma jog fadjal ko ce am non c'est pas comme ça que ça marche j'essaie d'avoir des règles objectives et universelles d'application de la loi mo concerne ma concerne la concerne ñenen mo concerne les victimes d'hier les victimes d'aujourd'hui et les victimes de demain cette même justice-là se déploie de façon linéaire pour tout le monde mu bañ a am am ndey dossier ak suis mais dans une certaine sérénité man rek suis non qui ma sous mandat de dépôt qui m'a donné bañ demande de liberté provisoire qui qui lañ rapport bi mu ko instruire nangam nangam non c'est pas comme ça il y a des règles. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui doit être convoqué, qui va statuer et qui va décider de valider les propositions qui ont été faites. mais il y a des du qui ndax bi bu 100% et que dans les prochaines semaines il y aura de des mouvements dans la magistrature et j'espère que nous, ils seront aussi prendre à charge parce que on dit c'est pas que par rapport aux jeunes ak mais on a des rapports pour lesquels les, recommandations des corps sont, claires. Comme on a que rapport force COVID-19, comme on est que y a un rapport you def, voilà, you CENTIF def, sur lequel il y a moins de bruit, ou le cours des comptes def, voilà, le IGE def, voilà, ça, you inspecteur, inspection interne Je def. Moi, que justice sera faite, en fait, ce n'est pas spécifiquement pour ces événements-là, mais dëkk bu amul yoon ci coow lay coow dëkk ak ci féewaloo ak ci ma kii yoo xamante ne ñun soxlawuñ ko en fait mais la justice pour finir quand elle se rendra dama bëgg qu'elle se rendre avec la plus grande sérénité que nit ñi xam ne que lii du diw mooy fexe faagaagal diw moo tax mu koy fexel lii mais que yoon moo am ci réew mi te moo nekk di dox monsieur le président dañuy dellu si waat tuuti ci benn poñ yaa ngi koy tudd léegi muy migration irrégulière ñen ñi di ko tuddee mbëkk mi ñeneen ñi di wax né Barça wala Barça muy benn phénomène bo xamné Sénégal dafa yag di jankonté lak jafé jafé bobu ñi la fi jitu def nañ lu né phénomène baa ngi existé ba légui tay ji yow lan nga fassiyéné def lo xamné ñi fi nekkoon defuñu ko ba phénomène bobu wañé ko ça revient à la même question que que que bi sa naataango président tënkoon na affaire bi muy wax ci affaire emploi des jeunes Nous euh, ngi aussi ci affaire justice relation avec les institutions peut-être nous continuer sur cette lancée avec euh, la situation politique du pays euh, diggante Ngourgi, assemblée nationale question yi jëm foofu question monsieur le président l'actualité politique moi d'abord cette crise bi am ci euh, diggante euh, ce premier ministre ak euh, assemblée nationale li jaxal sénégalais rek moy vote mutisme yëpp ngi nan wa président mom du wax du atté xeex bi parce que en réalité bras de fer la won bo xamni ni na ci niveau yo xamni ñi ngi doon xaar yow nga nga addu si lan mo waral nga nga maandu wala bokk da eh, nga waxtaan ak sa premier ministre ba xam ni moom mi ngi mëne combat boobu de manière ni nga ko bëggee wala bokk da nga jàpp ni say ñaari institution la rek da ngay toog nga arbitrer au dernier moment beneen question bi mooy sa relation ak sa premier ministre ñu bëri dañoo jàpp ni eh, Ousmane Sonko il vous fait un peu de l'ombre lolu est ce que lu ngeen déggoo la que ne yow da ngay nekk dans l'ombre bàyyi ko moom mu dem jël lépp euh, sur sur lui wala boog euh, moom moom mooy xadaram moom moo jël initiative euh, initiative am di dem di dem au front yow nga toog rek di ko di ko seetaan lan mooy seen relation yéen ñaar <laughs> d' abord par rapport ak lii xew assemblée nationale banku ma sama yoxo mais démarche bi ma jël du démarche boo xamante ne damay woo presse diko ci di wax ni ma ngi def li wala ma ci communiquer ci canaux yi may communiquer notamment conseil des ministres wala leneen li xew tamit fii la ñuy fekk ñun ñëpp mënuñu changer les faits ni l'histoire bi ñuy wax ci règlement assemblée nationale bi boobu ñun falooguñu kon problème la bi fi nekkoon avant ñuy egsi bu mu egsee parce que y a eu un changement institutionnel le premier ministre dem na ñu dindi ko ci sen règlement premier ministre ñëwaat na ñu war ko delo delloowaat ci seen règlement delo guñ ko le premier ministre dès le 16 mai le bindon ay ministre am né leen pour ñu remonter seen données pour la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale lool lañ bind ci circulaire bi kon koku mu ngi ci logique ku dem def sa déclaration à l'Assemblée nationale mais bu ko ben député interpellé né ko bu fi ñëw parce que règlement intérieur bi Si sa prédécesseur lañ leen adapté tul ñu bañ ko changé ba tey toogal bu ko mu répondre ko c'est quoi de plus normal après li ci metti wa assemblée nationale moy que leen su ma ko fenen qualité mais di jël pour moi c'est une question d'humilité ñi pas assemblée nationale ay ndaanan lañ ñu xaran lañ mais c'est que 165 personnes sur 18 millions de sénégalais kon évidemment si nous faisons une sélection sur 18 millions de sénégalais et de compétences potentielles dinañ am une meilleure qualité avec beaucoup plus de spécialités spécialité et d'expérience d'expertise en dehors de l'Assemblée nationale dans le principe même évidemment comment détenir tenir un débat tenir l'Assemblée nationale dina une qualité de ci ku ne ci biir assemblée nationale bi. non wax non maa ngi ñëw non non non waxuma loolu. je suis en de dire lu métti assemblée nationale mooy bi premier ministre nee na bu ma ko defee ci biti dina gën a am qualité. ma ne gën a am qualité boobu mooy nangu na ne qualité dina am assemblée waaye ci biti lay qualité de qualité de EP. ma ne loolu warul métti waa assemblée nationale parce que question humilité la kese muy benn bi ci tegu mooy wax dëgg yàlla politique nag. ku ne xam na nag du raayante yenn saa yi mu am ay picc yenn am saa yi mu am ay xuloo wala am ay mbii coombaalo ak politique ñoo ànd waaye nag bu la nit waxee loolu mu metti la bul na man damay dem violer loi parce que le document d'orientation budgétaire bi ñu waroon discuter à l'Assemblée ministre de l'économie et des finances préparé ko ñu adopté ko en conseil des ministres mu dem assemblée nationale toog deux heures de temps ñu avons ne une session bi doo fi def document débat d'orientation budgétaire Pourtant, la loi organique est dafa débat d'orientation budgétaire dafa war au plus tard le 30 juin La loi organique la bu en matière de finances publiques, c'est la constitution du Sénégal le premier ministre wax na ma lu ma joxul kenn autorisation mu violer la constitution financière du Sénégal loolu erreur la mais bi mu ko déggee ba pare dama woo le président de l'Assemblée nationale mu ñëw ñu waxtaan ma ne ko mais defar leen seen règlement intérieur li ci nekkul woon parce que di ngeen ko dind woon ndax premier ministre amatul woon léegi premier ministre am na delloowaat leen ko kii ñëw def déclaration de patrimoine déclaration de politique générale am loolu jarul ñu bañ a tenir débat d'orientation budgétaire réew mi ñoo ko bokk nañ ko waxtaane bu coow nag mënta ñàkk ci politique mais bu mu ñu yóbbu ci salfaañee yoon parce que waruma mais waru leen parce que yéenay voté rek yoon woo xamante ni dafay tegu ci ñun ñëpp y compris man mii kon demal waxtaan teg président de groupe parlementaire yëpp ngeen fexe jàpp bés ci nu mu gën a gaawee ngeen mais defaat la mise à jour du règlement intérieur parce que wax dëgg yàlla bu falsification amee du ñun ñu nekkoon majorité ñoo ko def waaye ngeen defaraat seen règlement intérieur premier ministre ñëw def la déclaration de politique générale ku ne xam na assemblée coow fa nekk bu ñëwee coow li continuer foofu parce que mënta ñàkk waxtaan nañu ci ci jàmm ci kaf ak ree dem na démb tenir nañu réunion décidé nañu mardi président de groupe yi dajewaat pour dem ci mise à jour règlement intérieur bi bu ko defee jàmm ne ñooy ci diggante bi parce que premier ministre dafa waxoon ne lundi lay def décla déclaration devant un jury populaire jury populaire tamit askanu Sénégal la rek mais dama ko ne premier ministre teggil sa tank gannaaw waxtaan ak assemblée bu ñu ne règlement intérieur bi amoon problème falsification dinañ ko defaat mise à jour nga may leen diir boobu semaine bii di ñëw incha allahu rabbi xanaa bu ñu waxtaanee mardi ci jàmm xanaa ñu laaj leen rek ci njëkk ak teranga falsification bi ñu corriger ko yow nga dem. def sa déclaration de patrimoine kon man tooguma benn yoon waxtaan naa te gëm naa ne waa assemblée may nañ ñu ma ko en tout cas premier ministre may na ma ko dootu ko doo dootul defati déclaration de politique générale populaire boobu mu ñu waxoon kon contrairement à ce que nit ñi di yaakaar liggéey naa ci li ma jàppoon na mooy sama wàll parce que sama discours très 3 juin tamit 3 avril tamit dama ne dama bëgg nekk un président qui est au-dessus de la mêlée. au-dessus de la mêlée nag mooy bu problème da ngay xool naka ngay waxtaane ku ne ci lu mu jàppoon moom mooy dëggam pour mën a réconcilier les positions parce que en fait après tout ay sénégalais lañu rek ay mbokk lañu te Sénégal kese moo compté te wax dëgg yàlla traversé nañu ay multi multi yoo xamante ne tey bu ko jarul nañ ko moytu waaw politique c'est pas un long fleuve tranquille les enjeux autour de la conquête la conservation du pouvoir lu ci yàlla xam doy na du Sénégal kese moo am spécificité boobu mais je m'attends à ce que nous, les hommes politiques nous ñu la hauteur d'esprit ici, tamit à la hauteur de la de notre peuple qui est un grand peuple pour yenn yi nous def l'économie de certains débats qui peuvent se révéler inutiles bi ci une question aussi la situation politique de bataille. tey que ci es président et premier ministre bon il faut que les sénégalais xam mhm. tamit sama premier ministre xam ngeen bu ngeen xoolee xëy na bàyyiwuñ ci xel depuis quand lañ commencé di wax que le premier ministre lorgne le fauteuil du président de la république daan ngeen daan daan ngeen dégg loolu daan ngeen fa dégg coup d' état rampant ci diggante premier ministre ak président de la république alors man mënuma fonctionné noonu bëgguma fonctionné noonu xalaatuma fonctionné noonu xam lan moo tax parce que bu dee lorgne fauteuil je l'encourage à non pas lorgner le fauteuil, mais à regarder le fauteuil. Clairement, moom le premier ministre. parce que 10 ans ngi nii ci gannaaw may pour mu toog ci fauteuil bi te bàyyiwu ma nag te duma mos a bàyyi pour mu leer dama ko ko parce que xam ko dem ko yene parce que xam ne mën nako ko dem ko ko parce que Sénégal la yene jam. donc lool dafa wara a leer d'abord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 dem hôtel Azalay def sama conférence de presse conjointe ak mom lan j'ai repris les recommandations de la CNRI parce que Sénégal qu'on le dise ou pas man nima ko don la koy wax le président de la République a trop de pouvoir damaa ko waxone fekk ne ko président tay la ko gëna mëna wax le président de la République a trop de pouvoir lors de la réforme de la Constitution, on avait institué le gouvernement pour mon une institution. Mais ça n'a pas rééquilibré les pouvoirs ni au sein de l'exécutif, ni entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si on bëggee faire des réformes si bu mu une position de circonstance, ci am a position de circonstance ŋàññi ku lu ne mu la di avantage la nga ci man je ne suis pas comme ça parce que ma personne elle ne peut pas être plus importante que les aspirations du peuple sénégalais, encore moins pour le Sénégal. Maintenant, ce que nous attendons, au-delà de, de, de, de ce que nous avons dit, opposition bi man dem leen di sant te ku ci ne ci ñoom na xam ne lu muy wax maa koy dégg xam lan parce que je sais même ñii wax sax pour opposer wu kese bés dina ñëw ñu wax lo xamante ne dëgg la ak njëriñ la té bu boobaa dama koy jël doxal ko pour njeriñu seen askanu Senegal, mais bu dee seen agenda nyom moy ñom ñaar tôt ou tard am problème ñaar ñi and di ñoy am problème ko mu nek jëk rek jabar mag ak rak papa ak dom yaay ak dom xarit setan fu ne lay dugg mais dina raconter rek une petite anecdote man le le premier ministre du won sama xarit ah du won sama xarit de déedéet mais avant ñuy génn kaso bu ñu commencé may ñu pour ñu togg ci lañ waxtaan ci situation bi nit ñi di wax mu wóor ma ne li ko mën a def rek mooy kii ñëw wax fii dem wax fële wala di wax fii di wax fële en tout cas ñi compter par exemple pour pour pour pour pour pousse ma pousse ma ba ma gis sama bopp moom na ñu noppal man je suis pas comme ça je suis quelqu'un de très lucide de très froid et de très humble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 sur un projet en toute loyauté mais ne ko sama xarit mi non na la nak dan na la baye xel dila la mais ne ko sama xarit donc fu mu nekk nii avant ñu doon génn kasso ki nek président ki nek premier ministre ay xarit lañ. au delà de ça man sama doom këram la yendu tey te dañ moom moo moo ñëw dem jël ki ne da koy jël si. Mamadou Dia ay xarit lañu woon aussi ah. ak Mamadou Dia ay xarit lañu woon. non mais wax naa la oh mooy xëy na ñooñu dañoo yàgg nag xarit avant ñooy kii kii nag dañu nekk xarit juste avant li. sur cette question monsieur le te wax nga ko également sa biir programme nga jàpp ni président de la république bu Sénégal dafa bëri pouvoir mm-hmm. mais suñu demee ba koy wàññi itam dafa am si ay textes yi nga xam ni peut-être moom moo ko war a def. est-ce que tay jilé foofu lañu ñu toll maanaam est-ce que da nga ndell len say pouvoir jox ko jamono Non, wala n'est non c'est pas encore fait parce que ça nécessite des réformes mais je le dis hein, c'est quand il veut nee ko mais justement monsieur le président euh, sur, cette question-là est-ce qu'on doit retenir que yow da nga japp ni ben man naa ngay def et que après liggéey bi ngay def mom moy installer ko mom à la présidence de la République ma enchaîner sur ces réformes-là yi ñuy wax noko nara défé est-ce que c'est par référendum wala da ngay jéem a dissoudre assemblée nationale bu nekkee da nga ko nar def kañ nga ko nar a def pour que mu jàll sous forme de loi constitutionnelle euh, li ci euh, ëpp solo daal moom mooy que ni jàpp nañ ni réglé nga problème bi ñu ngi koy doog a xam tey jii nii mais surtout ban euh, ban ban plan nga am justement pour installer euh, M. Ousmane Sonko euh, qui est un premier ministre qui xam ne doole bu mu am bi rare na ñu gis ko Sénégal. Euh, pour mu à la présidence. toog ci fauteuil bi ni nga non, non, non non, le premier ministre na amul benn doole. parce que prérogative bi constitution bi mooy ne le président di def le premier ministre di def République. boo la constitution bi le premier ministre est très faible loolu changé vous ci diggante bi hein.

da ngay xam lan nga am nga téye ko fukk fukk loxo ak juróom-ñaar ça c'est une question de raison naturelle quoi benn j'avais dit que dañoo war a wàññi les pouvoirs du président yokkal ko le premier ministre pour équilibrer au sein de l'exécutif instant yi nii rôle bu lu mu amee nii xam lan moo ko ko may sa stature nga bëgg ko nag nga bañ ko eh bien voilà celui qui élit une liste de titulaires de députés nga bëgg ko nga bañ ko voilà quelqu'un qui dit dem leen falke en en dix jours ñu génn battre campagne n'y a dégg ko voilà quelqu'un qui a xam dañ ko gloune, il a résisté entraîné ay nit pour lui changer mais loolu même su ma petit bëggoon euh, tëj sama bët sax su petit ci tëjee sama bët sama xel di ko gis te man soxoruma vis-à-vis de moi ni vis-à-vis de personne nee la tay la ko gëna a mu nek président de la république waxuma na nak euh xana président bu tok ñett wër 100 jours nga bëgg mu wax ci waxu mandat xana bëgg ci wal journaliste kessel ay waaye mana té duma ci teel a wax de gaay yi dinañ ko xaar lu yàgg duñ ko dégg diñ ko dégg de maintenant yeen pexé la am instant yi ni man il fait un excellent travail formidable bu fekkee ne j'ai pu sur le plan international dox agenda bi ma dox te dara soo xewul ci réew mi c'est parce que damaa am premier ministre bu mel ni moom sama gannaaw mu wóor ma ne que lu ma bàyyi ci loxo mel na maa sama loxo wala sax ni gën la koy téye je suis très serein parce que j'ai le meilleur des premiers ministres de l'histoire du Sénégal loolu laa jàpp te gis nga noonu ni ma ko jàppee noonu noonu laa koy fonkee nag ak lépp loo xamante ne moom ma koy wax beneen bi nag Eh, Sulaiman, gis nga bo amé ko xamné ne la wax deug xol lu la neex te bëgg na la ba nga xamné ki bëgg na la teg na la fu sori won la ko du ben yoon du ñaar yoon dang koy bayé nopp dan Ousmane soxlaatul won ma dara pour ma xam fan la fan la fan la nekk fan la ma teg 2021 dama tok ba étau bi commencé resserré wu trop autour de moi beaucoup de filature mané na dem village seeti samay wajur bala may ñëwaat parce que bo moytul buñ ma jappé mën na yag duma leen gis may ñibbisi mu wo mané ma dañ ma wax ni ñu ngi lay filé waye jubalal sama kër ba kenn fekk la fi mané ko man sama kër laay jubal <laughs> parce que bu dé dañ ma wara japp autant nga bañ am problème sa kër ma andil lako 2021 2023 mom moma ma wo né ma dégg na ñu ngi lay sét pour arrêter la waaye man maa ngi ñëw foofu ma ne ko boo fi naree ñëw ma dem léegi jox jébal sama bopp dikk soxlawuma paternalisme boobu c'est pas un paternalisme c'est un excès d'affection bu mu am ci man nga am loolu nu mu metti metti métti fii mooy salle conseil des ministres maag moom fee la ñuy nekk le conseil des ministres passé bi ñëpp demee def nañu lu mat deux heures de temps fii di waxtaan muy wax lu mu jàppan moy deug moy wax limu mu moy deug parce que bi may nek sax secrétaire général wala avant ci bir parti bi man lima ma la ko don wax duma xol lu ko neex ak lu ko neexul dañoo habitué de am des divergences normal entre nous ci waroo kaddu parce que divergence yoyep yëpp c'est comment rechercher la meilleure idée et la meilleure solution au problème que nous sommes en train d'adresser kon ñi xaar lolu mom man nañ maxé fu ñu nek wax deug yalla mais ah du demee niñ ko yaakaare de alors président euh, euh, ñu ngi euh, gis ne conseil supérieur de la magistrature bañ la déggee nga àddu ci ba noppi lañ dégg daal mooy nii wii nii non bu président Macky Sall <laughs> leeru daal ci suñu bopp ñu bëgg a xam da ngay génn wala da ngay toog sénégalais bëgg nañu leeral beneen ponk bi mooy déclaration de patrimoine ñu ngi koy xaar boobu itam ñi ngi naan Euh, kañala ko conseil euh, constitutionnel di fësal sa boss en tout cas ndax moo yitteel ñu bëri ñu xool euh, tolluwaay bi Euh, ci mujj bi dinaa ko ci euh, ñambaas rek muy wàllu foncier ndax mënoo fi toog te duñ la ko laaj gis nañ ni suuf nekk na loo xamante ne euh, jafe-jafe la ba premier ministre ba mu demee fu mel ni mbuuxkat wax na ñi récupérer nañ lu toll ci mille parcelle parcelles mille parcelles yooyu état daf ko récupérer dédommagé ña ko moomoon wala ñu xam beneen bi mooy littoral bi commission ad hoc bi nga xam ni teg nañ ko bu ñu noppee ci liggéey bi dañuy xalaat ñu raser yenn ci construction yi wala yi fa dess ci ruqi dal daal lañu wara jaar ngir mëna bénéficier ci geej d'abord pour conseil supérieur de la magistrature dama gëm ne justice bi elle est rendue au nom du peuple motax bu ñuy def assise ñepp la wo y compris les détenus ñepp la wo y compris ñi nga xamantene ne tamuñu di leen wo ci buñu doon wax lo xamantene ne dafa dafa dafa soxal réew mi cette gouvernance constructive inclusive participative moo ñuy may ñu retenir les meilleures solutions parce que su ma sañoon problème bu ñu identifier ba toog ci ba waxtaan mu nekk bu feetee boor ñu dem songi beneen conseil supérieur de la magistrature sama entourage laa ci njëkk a waxtaanal ci bi débat yi commencé parce que chaque jour ma doon defal le rapport journalier. yi ma ne ci kenn yow xam nga lan moo nekkoon sama sama position ci conseil supérieur de la magistrature ndax ñëw nga fekk ma kaso bu ngeen demee ngeen laaj ko Aliou dafa ñëw ma ne ko seede ngay doon ci man lii laa xalaat ci conseil supérieur la magistrature ma ne ko dund naa ma ne leen dund naa quarante quatre ans siège yu ma conseil supérieur de la magistrature donc mën naa dundaat quarante quatre du ma fa siège du obsession personnelle ci man ma siège conseil supérieur de la magistrature parce que gëm naa ne conseil de ministres moo gën a kafe kawe conseil supérieur la magistrature mais lutax nous ñu ne président dafa conseil supérieur de la magistrature lan quel était l'objectif Moi, pour garantir l'indépendance des magistrats oui ou non oui ces mêmes magistrats là ne déedéet président bul dem te ñoom bëgg nañoo indépendant je dis nañu bàyyi xel li tax ñoom ñu ne président desal ce que je suis en train de dire mais personnellement Tog conseil supérieur de la magistrature ak bagn fa toog yemale mais les un mois que j'ai pris mobiliser sama tous les services de l'État tous mes collaborateurs pour enquêter sur sur beaucoup de postes sur quel est le profil de magistrat qu'il faut y mettre ba demb ma premier ministre liggéey nañ ci jusqu'à minuit mu je ñibi ñibbi su conseil supérieur de la magistrature il faut bien que quelqu'un fasse ça kan lay nekk ak yan garanti lay lay lay am ne dina def ni koy mais cela ne veut pas dire que sans moi c'est le déluge parce que d'autres pays ont fait une autre option mais je dis que puisque indépendance magistrat la ñuy bëgg te magistrat yi bëgg nañoo indépendant le magistrat yi ne na président des na leen président déglu parce que su ma génnee pas Pierre Edouard qui va être indépendant c'est juste ce que je dis Maintenant, au moment où on me remettait le rapport, je n'ai pas encore lu les arguments des tenants de Natog et les arguments des tenants de Nadem. Toujours est-il que les assisards ont convenu d'une chose. Moi, conseil supérieur de la magistrature, même si président de ces a nek rek question de président et magistrat que amna yenen sénégalais yo xamantene war nañu dugg ci bir conseil supérieur de la magistrature. Et sous ce registre là, problème parce que avec le COS j'ai signé un décret la semaine dernière pour davantage ouvrir le le j'ai mis aujourd'hui des représentants de la communauté universitaire j'ai mis des représentants des syndicats des organisations syndicales j'ai mis des organisations un représentant de l'ordre national des experts du Sénégal et j'ai dit parce que nous un représentant de l'opposition nous xam j'ai dit le candidat arrivé à la dernière élection deuxième, voilà comment désigner. Avec qui le parti ou la coalition de partis politiques qui est la mieux représentée à l'Assemblée nationale, plus le représentant de l'Assemblée nationale en tant que euh, institution. que le, Conseil supérieur soit ouvert, il le sera. Avec ou sans moi, il le sera. Maintenant, décider de rester ou pas, j'attendrai de lire les arguments parce que je venais de recevoir le, rapport je ne l'ai pas encore lu je n'ai pas encore vu les arguments de Nadem et les arguments de Togo mais ceux qui sont censés dont mon départ est censé garantir leur indépendance quand ils disent le président Togo en toute froideur en toute lucidité avec le recul qu'il faut je veux entendre ces arguments là et voir le poids qu'ils donnent si c'est des arguments qui me convainquent je resterai si c'est des arguments qui ne me convainquent pas, j'en partirai. C'est aussi simple que ça pour moi. Beaucoup d'observateurs, les magistrats, le euh, Conseil supérieur de la magistrature, c'est pour mieux faire passer des doléances euh, corporatistes. Et, si c'est le cas, on redonne sa position D'abord, je ne crois pas au corporatisme. Je corps, je n'ai jamais défendu le corporatisme. Je ne crois pas au corporatisme. Ensuite, pourquoi, mais la démarche des assises, est-ce que magistrat Eric Non. Pourtant, les magistrats avaient, écrit sur ce que devait être la justice. Mais là-haut, j'ai appelé les, journalistes, la convention des jeunes reporters a été invitée, les détenus, les, les, les, les ordres professionnels, les membres des assises. Donc, je crois foncièrement que la justice étant rendue au nom du peuple est une affaire du peuple. Ce n'est pas une affaire du président de la République et des magistrats. Mais les magistrats étant des fonctionnaires doivent être affectés. Moi, je suis fonctionnaire, hein, vous Si je n'étais pas passé président de la République, demain de loi à la direction générale des impôts et domaines. Et de 2014 où je suis, non, même pas 2014, 2007, 2023, le 14, le 14 avril à, 22h, quel ne m'a donné de cette affectation, hein. c'était le ministre des Finances mais est-ce que terrain na ma li ma ci rew makoy wax li ma ci biir impôt makoy taxawé non je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que l'indépendance c'est pas par rapport au à l'exécutif que c'est aussi à certains lobbies à certains certaines forces organisées au capital à certains groupes de pression donc ne prenons pas l'ombre pour la proie quand il faut adresser cette question-là nous devons le faire sans passion parce que cette réforme-là elle doit viser la pérennité et se détacher des des des personnes qui ont été ñoo nekk Ce c'est pas une réforme qu'on fait pour man même quand on dit le président de la république de war ou pas Il ñu gis Diomaye nañu gis le président qui qu'il soit dans le futur qui viendra voilà ce mu fay faire pour qu'on ait la meilleure organisation déclaration de patrimoine man de patrimoine, la mu wax pas naa ko déclarer te tënk délai conseil le président de la république article 37 fait sa déclaration de patrimoine le conseil constitutionnel la rend publique dara comme on pour me def dans trois mois dans un an, mais demain, puisque les autres membres du gouvernement ont nga trois mois c'est un délai raisonnable pour man tamit ma dem def sa déclaration de patrimoine man je ne sais pas le conseil constitutionnel qui fait partie de l'ordre judiciaire ils ont la latitude de, le, de la publier quand ils veulent Pas conseil vous leen neexee ñu def ko léegi ce wala suba wala gannaaw suba man li ma war a woon déposer j'avais pas de contrainte de délai j'ai déposé au même moment que tout le monde conseil nag quand il ci afiyam quand lay kañ lay kañ lay kañ lay publier ou quand lay bañ a publier mais comme je l'avais dit de évoluer c'est les mêmes biens j'ai tenu. Je poser la question, est-ce que même, euh, même, même, patrimoine bien déclaré non, avant et après Vous verrez entre-temps, peut-être que le président de la République, comme nous avons dit, nous de la mine d'Anouahé, dañ ko dañ ko ñàgg ci yenn yi voyagé je ne vais pas acheter un billet <laughs> Demande ma ci ci station nan damay jënd essence et pourtant ñu ngi may fay lu ñu may fay mu ngi dugg sama compte sama bien yi terrain yi ma amone évolué wul je ma waxoon mooy évaluer les les les biens yóbbu naa fa expert ils ont évalué le terrain du bi ma jëndoon dañ lu muy jar sur le marché j'en suis pas responsable ça c'est la bulle immobilière li ma ci dugal ci sama pour tabac, Je man maa vous verrez bu vous verrez man je suis nickel. C'est le président de la république Quoi foncier di nga wax ne waxu euh, urbanisme ñi ngi si nawet te gis nañ ne bu nawet jotee souvent dëkk bi day am ay ay yenn pàcc ci dëkk yoo xam ne dañuy am problème inondation ci communiqué conseil des ministres bi passé gis nañ ne jox nga ndogal jox nga digal pour sa sa gouvernement pour ñu teg benn programme intégré de développement de de l' mais dafa fekk ne ñi ñi ngeen fi wuutu ñoom tegoon nañ fi benn plan décennal de lutte contre les inondations mu am ay réussite mu am ay échec Légi, PIDA bi nga xam mom moom ngeen fas yéene en place Manam ci durée ci copar, ci stratégie ak ci objectif lan mo est nan la mën def ba wouté ak plan décennal bi fi nekkoon. bon pour gàttal. fu muy wuute le plan décennal Euh, amna patch bo xamante ça devait mobiliser ci biir plan bi 416 milliards environ si mes souvenirs sont bons. Ça, ça a été engagé à hauteur de 98 qui font ci pourtant on est à un niveau de réalisation de 12 Quand on kon un pour le plan décennal demul ci plan décennal quand on ñuy un autre plan li am solo mooy na bi dem parce que si on avait 750 milliards on aurait eu moins de difficultés au moins la gestion orthodoxe des ressources côté boobu dina changer

9 euh, personnes qui mourent quatre. 1104 parcelles. Ça ne vous choque pas? Si vous avez une nouvelle ville de Thiès, 34 personnes, nous avons 16 186 parcelles. Ça ne vous choque pas? Mais, man, Kasso, là, là, là, tu vois que tu parce que je savais. Je savais mais évidemment nous avons 9 personnes nous avons 1000 parcelles quand la convention des jeunes reporters qui bu mu jaaree seet si wax waxu habitat dama leen dinañ mën a def dara donc lu ñuy jël ni de pour patrimoine hein. quand 5 ans bu ma publier ma déclaration de patrimoine vous verrez vous verrez je ne suis pas dans l'accumulation je ci suis ci parce que à titre d'exemple bi may fàllu gis ngeen sama compte pourtant non la toll j'étais diablement heureux et je veux rester diablement heureux même sans argent parce que je ma beaucoup de culturalistes. Mais la mais justice sociale nag dafa un groupe de neuf personnes am téeméer junni parcelle ak téeméer ak ñent wala fanweer ak ñent nit am fukki junni parcelle ak juroom ben ak téeméer ak juroom ñet ñet fuk ak juroom ben qu'est-ce qu'on va faire de ça on va refaire le plan et on va aller vers une distribution plus équitable. Parce que le problème aux ressources Sénégal, d'abord, c'est un problème de, de, de, de, de, de, de, de, de répartition juste. Nous sommes des gens qui nous, opposition, mais nous sommes beaucoup Man, je sais ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce que nous avons Parce que nous avons que nous avons Nous avons 13 hectares, 50 hectares, 200 hectares, 1 hectare. 1 hectare, c'est 43 parcelles. Pourquoi quelqu'un n'est pas parce que jege na nguur war am un hectare 43 parcelles yoo xamante ne day dem jaay ji ko yeneen sénégalais te li ko ko kese mooy jege nga nguur mu ne la andil sa carte d'identité booy baal ñu jox la un hectare. c'est ce qu'on cherche à réparer a Mbour 4 et dans la nouvelle ville de Thiès injustice la littoral bi aussi kazalika nit ñi egg nañu fi ba bâtiment état am nga xam ne pour nga jox ko nit le patrimoine bâti da nga war dem assemblée nationale ñu voter loi nga doog am autorisation pour dindi ko nit ñi dañuy dem fekk bâtiment bu màgget mais c'est bâti defal li loo wax mais dañuy bàyyi bu guddi ñu ruuj bâtiment bi mu nekk un terrain nu ñu ne c'est un terrain nu kenn occupé ko ça appartient à l'État ñu defal ci ay nit bàyyi déjà bu ñu xamee ne daanu nañu ci la ñu def annulation ay ki yu bari mu delluwaat dans le patrimoine de la SOGEPA et il y a encore énormément de choses à récupérer c'est pas pour les pour jël ko distribuer waat ko wa waa waa nguur gi de mais ça doit aller au Sénégalais parce que fi ku fi jog di daanu di xey suba ngoon boo yeewoo bu ñu sa xol kër ci nekk buñu tejé sa bop kër ci nekk lo meun di wax boko boko boo boko waxul kër ngay xalat c'est une sécurité dañ ko war a yombalal sénégalais yi ba pare yéwén ci nuñ koy mu ànd ak que les gens aient la même chance d'y accéder parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'accéder à la propriété loolu moo tax def on a réduit le ciment te dinañ ci defaat ay jéego yu bëri gën a gunge nit ñi à l'accès ci accès à logement parce qu'ils méritent ça les sénégalais c'est juste le but de l'exercice sur le littoral c'est la même démarche c'est la même démarche keroog premier ministre mu ngi ñëw fii Anse Bernard di ko wax ñaata nit ñooy dem Anse Bernard li ñuy wax duñ ko weddi ils ont découpé et ça a été des histoires de quatre mille cinq mille mais bon du ñi ko def sax ñooñu gën a intéressé de base on se dit alhamdulilah ci bu ñu egsee ba mën a defar yenn yi parce que am na yoo xamante ne malheureusement boo ko bëggee dabuwaat day day day day metti mais lu ñu mën a dabu te di ko def ngir askan wi te askan wi rek tax ñu jóg loolu moom wax di yàlla dañ ca taxaw taxawaay ak ak fayda gu mat sëkk foncier di question bu am am importance soxal askan wi yëpp euh, xuusuñu lool ci ndox mi ak inondation bi Abdou Kogne posé sànq euh, aussi ñu waroon dem ci wàllu agriculture ak pêche ak euh, Souleymane Nia aussi wàllu santé soxal lool Pierre edouard ak ndey Marième xaw ma ndax monsieur le président dina ñoo ko may ndax temps bi moom mi ñuy xoj te dañoo bëggoon jàll si wàllu diplomatie Ndeye Marème. santé liñ ciy laajte du bëri ndaxte nekk na secteur bu am solo secteur boo xam ne tamit euh, mën nañu wax ne nguur gi lu mu ciy dugal ci koppar bëri na ndaxte dégg nañu ne yaa ngeen di fay bor bi nga xam ne lañ amaloon hôpitaux yi ñu koy fay taxul ba euh, structure hospitalière ñu ngi ci ay jafe-jafe. tay jii ci ay réforme ay coppite yu ñu ci war a mën a indi lan la ba tay jii ñu am ay euh, soins de qualité.

ils ont fait l'option d'aller dans les dans les endroits les plus reculés pour exercer là-bas Et ils ont ce mérite là donc côté le gouvernement a dit d'abord sur le plan de la formation va permettre plus de spécialités gën leen de ci spécialisations. def spécialisation ensuite faire tamit que infrastructure euh, hospitalière bi je présente partout avec le niveau de prestation bo xamantene tax nit une prestation qui doit être ordinaire daw ay kilomètre kilomètre kilomètre pour Dakar pour mën ko am Lorsque mo taxone contrat dans le domaine de la santé j'avais dit taxaw taxaw parce que ressources ñu a mën nañ ci am ñaar hôpitaux wala hôpitaux yi services ñu donc rationalisation et ak carte sanitaire bi gouvernement bi ngi ci def ay par rapport à l'implantation yenn hôpitaux pour que ñi polarités ci polarité bobu yépp ñu mën leen référencer ci hôpital toutes les toutes les spécialités qu'il faut et le plateau technique qu'il faut sur le plateau technique aussi les hôpitaux les offres yu ñi am day ak le plateau technique mais nous veillons juste à ce que les facturations yu ñi def que ça corresponde au prix du marché parce que comme je l'ai dit surfacturation c'est bien, ça on nga gis ci boo xamante ne mën na hôpitalu ci donc il faut rationaliser l'utilisation des ressources diversifier euh, le maillage pour que nga maintenir amul des centres ay hôpitaux de référence ensuite former le personnel avec les spécialités pour que les matériels matériel boobu ñu installé euh, mu am des spécialités spéciales yoo xamante ne mën nañu ko mën nañu def les les prestations prestations qu'il faut donc ça reste un défi des choses ont été faites d'autres ont été moins bien faites suñu responsabilité mooy gën a sori ci li nga xamante ne lu baax la ñu jotoon ko fi def ak loo xamante ne jotuñu woon ko def te mu doon lu baax ñu gën ci sori aussi mais euh, gouvernement yaa ngi ci def ay jéego yu mag a mag. ci mbay mi ak napp bi mbay mi moom wax nga ci lu bari loo xam ne jàpp nañ ko bu baax a baax xëñ na rek ci dimension foncière rurale bi euh, suuf si nga xam ne moom la ñu béyee nan lañ koy sécuriser pour que ñi si war a jot jot ci euh, bokk na ci tamit ñi nga xam ne dañoo soxla ay grande surface pour def agro business mais li ma gën a soxal moom mooy euh, napp bi pêche bi boo xoolee résultat ANSD yi ci recensement bi boo xoolee population bi nga xam ne ñooy dund ci pêche bi dafa wàññeeku lool parce que si mes, notes sont, fidèles, 82 000 personnes y pas ci pêche plus 2500 personnes qui aquaculture bi il y a quelques décennies nous des centaines de milliers voire des millions de personnes vivaient directement ou indirectement dans napp bi ak clandestine euh, les contrats euh, les accords de pêche avec l'Union européenne euh, pavillon sénégalais ak euh, les navires qui viennent pêcher Il y a la moitié de vision ak yan euh, yan jéego ngeen ci doxagum pour napp delluwaat fu mu nekkoon ci euh, nutrition ci création d'emploi ci devise ak ci économie <laughs> monsieur le président xam naa dina ko tënk ndax problématique c'est sûr que moom ah, am na ci ay vision ak yoo xamante bi jéego yuñ ci war a euh, d'abord, sur, le foncier, euh, surtout rural, il est important que nous euh, devions faire une réforme pour sécuriser les droits de ceux qui détiennent la terre. Parce que ce avons est des choses qui nous ont fait. avons fait des choses nous avons fait. Nous avons fait depuis 100 ans, 150 ans. Nous nous avons des papiers, nous avons fait parce que c'est le domaine national. Mais nous avons fait des choses, nous avons fait des choses nous avons fait des choses defal ko ci même titre foncier souvent même fekk na la mise en valeur n'est pas encore faite lolou buñ ko mënee defal nit war nañ ko mën defal ku yoré souf soosu pendant des des décennies té buñ ko defoon rek souf ci commencé nek khalis buñu ñu dem garantir en banque mais surtout ñu bëgg def agrobusiness bëgg de grande surface comme vous dites il faut que ñu am générosité wu xamna ne ñoo bay ci ndox ñoo bay ci ngelew kon la ressource première pour bay souf la léegi bo ñëwee fo xamantene amo souf au lieu que ngay fokati souf ci mais bokal ak ñi fa nek ñu apporter souf ci nga apporter le capital ngay installer ñom ñu fay liggey nga di len fay parce que ñu ngi liggey mais ñu am dara tamit parce que ñom ñoo apporter won souf ci bu ñu defoon lii rek ciow lu bëri li ngay gis nii wàññeeku mais da ngay fekk ay nit ñuy bay yaakar lolu kese yow nga yaakar lenen ba mu génnee leneen ci xaaliss nga ñew na non damaa soxla si parce que ci souf ci dafa ñu ci dara fekk da fa jaar noor bo fa jaaroon nawet fekk fa dara dara ne ko fa ci gi parce que les les les les ndox fa te le ministre de l'Agriculture a bu dee wër def ay ay ay euh, coopératives mais en fait parce que dañoo gëm ne que les petites exploitations familiales agricoles mooy la solution à l'autosuffisance alimentaire et à la modernisation de l'agriculture. Mais mais day laaj un accompagnement ci exploitation yooyu pour que suuf si ñu mën ko valoriser ba pare mën ko mu mën a génnee xaalis ñooñu mën a bën wala ñu def yenn installation yi pour béy parce que xam nañu ko bëgg nañu ko te moom lañu ñu yaakaar il leur manque juste de l'argent donc des fois ñuy def loolu il faut que ñu nangoo di collaborer ak ñu moom suuf si te am ñu am ñu yéene leen tamit que suuf si bañ a génn seen loxo définitivement rek ñu nekk ay ay ouvriers agricoles mais qu'ils soit des agripreneurs qui vont aller en en en en joint venture avec les détenteurs du capital loolu mooy côté côté côté côté foncier bi bi ci des c'était napp bi je crois que suñu gouvernement bi tamit def na jéego ci transparence déjà publié tous les navires yoo xamante ne ñu ngi au large de nos côtes de pêche beneen jéego bu ñu def mooy peut-être du ci loo xamante ne gouvernement bi communiqué na ci mais arraisonné nañu ay bateau yu bari lan moo ko waraloon parce que dañ leen wax ne yéen ci lu ñu signé ak yéen fii ba tant de kilomètres waru leen fa napp parce que dañ ko bëgg a suñu nappkat yi ñoom yenn saa ñu bàyyi foofu ñëw ba ci foofu li nappkat yi war a napp ñu raas raasaatu ko ba pare dem ci foo xamante ne nappkat yi mën ñu faa egg ñu arrêté ñëpp ñoo xamante ne traversé nañ périmètre boo xamante ne waruñu foon egg teg leen ay amaan yu diis tamit fi ñu doon jaar yenn saa yi nag pour lijjante ko ñu jaar fa bi yoon lijjantikuwul ñu dem fay ji ba pare dinañ ko bàyyi parce que tant que bàyyiwuñu ko dañu bàyyi di leen arraisonné duñu bàyyi tamit di leen di leen euh, di leen di leen def ay amende te bu yàggee ci récidive dañuy téye sax seen batu benn seen batu yi benn yoon mais évidemment bu demee ba nit ñi bu ñu jëlee seen essence jël seen doole ak seen temps dem géej def ay fan ñibbi si perte mais bu yàggee dootuñ mën a refinancer li tax ñuy dem ci campagne mais buy géej gi di amaat jën léegi ñi ñi ñi ñi ñi ñiy dundee napp te bëri nañ delluwaat ci napp gi c'est juste ce travail là qu'il faut faire et je sais que suñu partenaires yi y compris l'Union européenne mais pas que nous savons que doon signé accord de paix, du ma wax signature de amaat mais un dina changer. deux ku signé dara tamit force la forcé nga respecté li nga signé. Merci, M. le Président. J'espère que les questions ont été claires. Bon, il y en a certaines peut-être qu'on a dû sauter parce que les thématiques ont été dépassées juste une ou deux. Euh, mais si vous permettez, nous allons passer aux questions diplomatiques et aux relations africaines. Et on va commencer peut-être par Edouard, euh, qui a une question avec les institutions de Bretton Woods. Oui, oui, euh, Monsieur le Président, on aimerait savoir les relations que le Sénégal entretient avec les institutions de Bretton Woods, que, sont le FMI et la Banque mondiale. Euh, dernièrement, le chef de mission du euh, Fonds monétaire international ici au Sénégal avait dit à propos de l'eurobond euh, émis par le Sénégal, les 450 milliards, que le Sénégal n'avait pas besoin de cet argent-là. Il a même parlé de surfinancement que le Sénégal était suffisamment liquide pour pouvoir financer son économie. que, répondez-vous à cela Et globalement, quelle, est votre vision par rapport aux institutions de Bretton Woods Moi, je pense que des pays comme les nôtres n'ont jamais assez de ressources. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les urgences sont partout. Et le principal défi reste le défi de la mobilisation des ressources, qui ne peuvent se faire qu'à travers la fiscalité intérieure et à travers les droits de porte, mais aussi à travers l'endettement. Évidemment, sur le plan de l'endettement, on n'a plus trop de marge, on est obligé encore d'y recourir, l'essentiel étant que nous travaillons à garder la signature du Sénégal crédible pour qu'à chaque fois que le recours au marché international ou sous-régional s'impose, qu'on puisse obtenir ce que nous voulons parce que nous le pouvons. Ces institutions-là restent des partenaires avec lesquels nous sommes en, euh, train de travailler, avec lesquels le Sénégal a travaillé pendant des décennies et des décennies. Euh, les rapports que nous voulons avoir avec eux, c'est des rapports sincères. Et nous travaillons à ce que ce que nous présentons soit quelque chose qui reflète véritablement la situation financière. Maintenant, je ne les considère pas comme des boucs émissaires, encore moins euh, pour les autres partenaires avec lesquels nous sommes en relation. Il y a ce qui ressort de notre responsabilité. La gouvernance, la transparence, la reddition de compte, on ne peut pas imputer ça au FMI. Je prends un exemple simple. En 2023, on a réformé l'OFNAC. Pourquoi Parce que les partenaires avaient dit que si vous réformez, on va décaisser. Pourtant, la réforme allait dans le sens du renforcement des pouvoirs de l'OFNAC pour qu'elle s'acquitte, pour qu'elle s'acquitte davantage et mieux de ses missions. Je considère que pour notre respectabilité, on n'a pas besoin de partenaires extérieurs qui nous fassent la pression pour que nous, nous nous, nous, nous fassions des progrès sur le plan de la transparence et de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Ça, c'est une question qui nous, qui nous regarde d'abord. Avant que des partenaires n'aient à nous dire, il faut réformer pour, qu'on puisse décaisser. Certaines conditionnalités heurtent notre conscience parce qu'on ne doit pas attendre qu'on nous les impose dans, dans ce cadre-là. On doit les faire par nous-mêmes quand on considérera que c'est utile. Quand on considérera que ce que le FMI ou la Banque mondiale nous impose de faire ne va pas du tout dans le sens des intérêts du Sénégal ou du peuple sénégalais, en ce moment, on leur fera clairement savoir, par des arguments objectifs sur la table, que cette, cette option-là n'est pas la meilleure option pour nous et que voilà l'option alternative que nous proposons. Et comme on l'a tout le temps fait en bonne intelligence avec eux, j'estime que ils comprendront et nous soutiendront dans cette démarche-là. Et quand le FMI dit que, vous avez, que le Sénégal est suffisamment liquide pour financer son économie, est-ce que cela signifie aussi que vous, vous avez hérité d'un pays où les finances publiques sont assainies Non, pas du tout. Actuellement, on est en train de faire, comme nous impose la loi portant transparence dans la gestion des finances publiques au Sénégal, à l'article 7, il nous impose, le nouveau gouvernement qui arrive doit faire l'audit euh, des, finances publiques. Et cet audit est soumis à la Cour des comptes qui valide les résultats ou fait les observations dont il faudra tenir compte. Tant que ce travail-là n'est pas encore fait, on ne peut pas, euh, sur la base de, préjugés ou de, présomptions, euh, être dans, dans l'échange indirect, surtout pas par voie de presse interposée avec les partenaires. On attendra cet audit-là et la revue que la FMI est en train de faire, elle est en train de le faire en avançant, mais à un moment donné aussi, on continuera à, on, viendra leur dire, voilà ce que l'audit a montré. Monsieur le Président, il y a quelques jours, vos pairs de la CEDAO vous ont désigné comme facilitateur dans les discussions entre euh, l'Alliance des États du Sahel et la CEDAO, dans un contexte euh, très difficile. Euh, est-ce que vous avez évalué vos chances de réussite dans, cette médiation-là et comment vous allez travailler avec le président euh, du, Togo, euh, avec qui vous allez travailler sur ce dossier-là, et éventuellement avec le président de la Guinée-Bissau, qui a offert euh, également ses services dans, ce cadre-là. moi, j'estime que la situation de la CDAO est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CDAO est en difficulté faut le reconnaître, parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces trois pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CDAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CDAO dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins. D'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale, mais j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur, de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer d'attirer, d'essayer de, les faire revenir sur la, autour de la table de, des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki, à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé Si. Donc il ne peut pas, on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CDAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CDAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CDAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CDAO qu'ils ne pourront plus avoir et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CDAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme, les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres euh, défis que nous, avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CDAO, et dans toute la mesure, on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CDAO qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pères et sous la supervision de la CDAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CDAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les, États de la CDAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Four. J'ai prévu de lui rendre visite dans le cadre de mes tournées. Je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira euh, les voies et moyens pour, euh, pour, euh, pour, adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bachili d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, pour, je veux dire pas que pour cette, cette mission de médiation dans laquelle la CDAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de, sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs, les connus comme les moins connus, et qui sont encore là ou d'autres qui sont des disparus. Et je pense qu'en reposant sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant euh, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait euh, dit que le Sénégal, pour disposer euh, de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal Si oui, quand est-ce que cela va se faire Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec euh, les militaires français Non, c'est pas, je ne peux pas dire quand ça va se faire à telle date, parce que même les, les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales parce que les relations entre les États sont faites de rupture, de réconciliation, de rappel d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur le, la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec euh, euh, les, les, les hauts officiers militaires ainsi que les, certains membres du gouvernement, c'est d'avoir deux choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération militaire de façon générale. Mais tout le monde sait que nous sommes des souverainistes et dans la conquête de ces souverainetés, je ne dirais pas de la souveraineté, parce que c'est une souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, numérique, militaire et tout ce qu'on veut, dans la conquête de cette souveraineté-là, il n'y a, rien qu'on ménagera comme effort pour atteindre cette souveraineté-là. Lors de mon séjour à, à Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'ordre du jour. Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal, les deux parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous, sommes, nous, nous, nous, nous coopérons. Et quand cette commission-là viendra, nous travaillerons à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être délaissé. Et cette doctrine-là sur la coopération militaire, elle est définie pour nous, par nous, et elle sera présentée à tous les autres partenaires qui ont des, des, velléités, en tout cas de présence ou de collaboration avec nous. Et on travaillera dans chaque schéma à identifier là où se trouve l'intérêt du Sénégal. on le préservera de toutes nos forces. Monsieur le Président, Aram a parlé de la France, mais le constat est unanime. C'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, disons sur l'Afrique. Et dans votre programme, vous avez beaucoup insisté sur le souverainisme. Alors, ce souverainisme, est-ce qu'il est compatible avec une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures Autrement dit, quel type de relation le Sénégal ou bien même l'Afrique doit entretenir avec toutes les autres puissances, que ce soit la Russie, les États-Unis, les pays asiatiques, entre autres Je me suis engagé à faire de ce pays, en plus d'un pays stable, apaisé, ça c'est aussi le plan intérieur, mais je me suis engagé aussi à en faire un pays, un partenaire plus sûr et plus fiable. Les, la conquête de la souveraineté, comme je l'ai dit, c'est plusieurs souverainetés. Tant qu'on sera dépendant sur, dans un domaine ou dans un autre vis-à-vis d'autres personnes, on aura du mal à dérouler ce que nous voulons faire, qui soit conforme à nos aspirations, qui soit conforme au respect de nos croyances de notre, des us et coutumes de notre société ou autre chose. Il faut que nous arrivions, en tout cas nous travaillons chaque jour à aller plus en avant dans dans, dans ce sens-là, que nous arrivions à pouvoir faire tout pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le partenariat que l'on propose aux autres, désormais, c'est un partenariat qui respecte notre souveraineté et qui est mutuellement bénéfique. Ce pays étant un pays ouvert, à tous les partenariats. Il n'y a pas de partenaire privilégié autre que celui qui va dans le sens d'avancer avec nous sur la voie que nous avons définie et que nous pensons être la meilleure pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. Ça, c'est opposable, j'allais dire, erga omnes. C'est pour ça que les questions qui transcendent les mandats et les individus qui incarnent les institutions à des moments donnés, doit faire l'objet de discussions et d'un consensus national fort. Et qu'une fois que ce consensus national fort est dégagé et qu'une doctrine ou des règles sont établies, que les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont été aux côtés de nous ou qui viennent d'arriver et qui veulent aller très loin avec nous, qu'ils comprennent que voilà le cadre dans lequel ce partenariat doit évoluer. Et je pense que les partenaires, en tout cas, à qui on les a présentés, parce que comme vous dites, les yeux ne sont, c'est pas que les yeux qui sont arrivés, mais les pas sont dirigés vers le Sénégal. Je pense que vous voyez l'agenda, il y a encore beaucoup d'invitations à aller visiter, il y a beaucoup de personnes qui viennent venir. Et tous ceux qui viennent, en fait, on leur a présenté la situation, c'est que le Sénégal est un pays ouvert à tous les partenariats. Les partenariats que nous nouons aujourd'hui sont des partenariats qui sont mis au révélateur de deux choses. Il doit s'agir de partenariats mutuellement bénéfiques. Il doit s'agir de partenariats qui respectent notre souveraineté et notre culture. Et sur ce rapport-là, je pense que nous pouvons collaborer avec tous les pays. Monsieur le Président, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé cette primeur, euh, votre premier entretien avec euh, la presse de façon générale et précisément la presse sénégalaise. Là, six organes ont été représentés on sait que le paysage médiatique sénégalais est très très riche. Euh, j'espère que vous allez encore accorder d'autres euh, entretiens à tour de rôle à nos autres confrères. Ah, moi, je... Il <laughs> faut que les gens comprennent que euh, j'ai une équipe qui fait un formidable travail. Je les félicite d'ailleurs pour tout ce qu'ils sont en train de faire, ce que vous voyez comme ce que vous ne voyez pas, dans le gouvernement comme dans le cabinet et même d'autres personnes qui sont, qui sont dans l'ombre et dont les conseils sont extrêmement précieux parce qu'ils veulent du bien au Sénégal. Vous comprenez très bien que ce n'est pas moi qui ai dit que tel média vienne, que tel autre média vienne. De toute façon, quel que soit le média qui aurait été là, j'allais dire la même chose. Le directeur général de la RTS, il faut l'en féliciter, a mis le signal à la disposition de tout le monde. Soit le signal n'est pas accessible, on s'en plaint, soit c'est parce que moi-même je voulais être là-bas. Tout le monde ne pouvant pas être là, il faut bien qu'une sélection soit faite. Et sous ce rapport-là, je, fais confiance à mon équipe. Quand ils auront fini de faire leur choix et qu'ils me disent qu'on a choisi telle, telle personne, je leur dis, ça, ce pas des choses que je gère. Parce que si j'ai une équipe qui ne peut même pas choisir de façon objective des, journalistes qui doivent m'interviewer, autant, autant chercher d'autres. Mais objectivement, quand vous avez le groupe Sud, vous avez le groupe Walfadiri, vous avez le, groupe de la, de la, RTS, vous avez le groupe Futur Média, et vous avez... Euh, sans limite Sans limite. Quand je dis RTS, je pense à l'APS, PS, au Soleil et, à la RTS en tant que telle, et que le signal est mis à la disposition, véritablement. Je pense qu'on on a fait ce qu'on doit faire pour pour, euh, pour, euh, pour atteindre les, les, la cible avec laquelle on voulait entrer en relation, à savoir le Sénégal. Maintenant, cet exercice-là, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un exercice de, de, bilan. Franchement, 100 jours sur 1800 jours, on ne fait pas le bilan en 100 jours. Mais j'ai estimé qu'après avoir, qu'après trois mois à la tête du pays, que les Sénégalais avaient besoin de nous entendre leur dire l'état des lieux, sommairement, et de leur dire euh, le cap qu'on a pris dans les différents domaines, dans la mesure de ce qu'on pouvait dire avec le timing, mais avec aussi le saut du secret et, des, responsabilités. Cet exercice-là va se renouveler parce que la reddition de comptes, c'est aussi ça. C'est aller régulièrement vers le peuple qui nous a mandatés pour une durée et leur dire étape par étape où est-ce qu'on en est. C'est aussi en adressant certaines questions, comme on l'a fait avec les assises de la justice et comme on le fera d'autres questions cruciales, appeler toutes les composantes du peuple à donner leur avis sur la trajectoire que le pays doit prendre sur tel, dans tel domaine ou dans tel autre domaine. J'estime évidemment que les responsables de la communication, quand cet exercice-là se représentera, ne vont pas appeler les mêmes personnes. De toute façon, s'ils appellent les mêmes, les mêmes groupes, forcément, peut-être qu'un autre journaliste du groupe Al-Fajri ou de GFM viendra. Pas Pierre ou Suleiman qui viendra ou, ou C'est peut-être quelqu'un d'autre qui. Aram plutôt. Donc, mais sous un autre rapport pour finir. nous pour, pour finir ce sur... sera un exercice à tour de rôle. Non, non, je, je veux juste que mon équipe sache que qu'il n'a aucune pression à recevoir par rapport à ça. Parce qu'objectivement, les gens savent que choisir, c'est éliminer. Puisque cet exercice-là est le premier après trois mois, peut-être que dans trois mois ou six mois, cet exercice sera renouvelé. Avec moi ou avec d'autres membres du gouvernement. Ce que je peux assurer déjà, c'est un exercice de transparence, de reddition de comptes, de discussion avec le peuple auquel on va sacrifier régulièrement. Et évidemment, Certains sont venus aujourd'hui, je pense que d'autres viendront. Si c'est les mêmes groupes, d'autres journalistes viendront. Si c'est d'autres groupes qui ont choisi, de nouveaux journalistes viendront. Mais on ne doit pas véritablement en faire une source de frustration. Et j'ai dû entendre des, des mots, je crois, qu'il faut, qu'il faut éviter entre confrères. On ne peut pas dire que ceux qui sont là, c'est des tocards. Ce pas des tocards. C'est des gens qui représentent dignement la presse et qui font leur travail correctement, qui ont une certaine reconnaissance. Et je crois que nous sommes tous, après tout, des Sénégalais. On peut quand même y aller avec une certaine bienveillance. Bon, c'est des, des, des, des, moments qui sont des moments heureux. Vous les aurez régulièrement avec nous parce que c'est dans cette collaboration-là qu'on veut aller avec vous. Vous donnez la primeur et la priorité parce que nous vous respectons parce que nous savons que vous êtes là pour le peuple sénégalais, parce que nous savons que vous avez mené des combats pour que la démocratie soit ce qu'elle est. Et nous vous rendons un vibrant hommage. Et à travers vous, tous vos collègues, quel que soit ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire, nous avons fait des choix, il le fallait. La prochaine fois, d'autres choix seront faits, mais je dis à mon équipe de ne pas subir de pression et d'y aller avec toute la sérénité qu'il faut. Monsieur le Président, Son Excellence euh, Batirou euh, Diomaye Diakhar fay ñu lay gëreum di la sante ci li nga xamanté bi mom nga ñu jagleel tay euh, kon euh, tay ñu leen di fatali ne monsieur le président de la république moo accordé won génnam bu ñëk doon waxtan tay ak journaliste yi réew mi yaakaar ci ne lu bëri ci li doon jiixi jaaxa wala lo leen doon xalaat ci li nga xamanté bi mom la fi jot def wala mom la mbébét ci Euh, euh, ñetti weer yi mu fi amal am ngeen si ay tontu yu leer ñuy remercier bu baax journalistes yi nga xamante bi aussi ñoom ñoo ko teewe ak question yu leer yu xarañ yi nga xamante bi ñoom lañ ci posé euh, di gërëm suñu directeur général monsieur Ly ak monsieur Djimira ñoom ñi nga xamante bi ñoom ñoo coordonné lii lépp ba ñu mun ko am en direct si télévision yëpp yi nga xamante bi buggoon nañ ko diffuser tey kon ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah ci yeneen i daje yu mel nii